voilà d'accord. xamna leg leg leg nga delu swat nekkal ci jam dal bienvenue Bonne di nuyu patriote centre di leen sant di leen gërëm euh, di rafetlu seen rek di len wax ni le combat continue euh, di nuy sénégalais nekk yëpp bitim rew ak ñu nekk ci rew mo di ñaanal ñi feebar yalla may leen wër gu yaram guddu fan jàmm ak salam les détenus politiques yalla may leen liberté yàlla roof ñu doole ak kattan bi nga xam dañuy continuer xeex bi contre Macky Sall ak régime di euh, ñaanal wergu yaram gudd fan président Ousmane Sonko di gën a di rafetlu taxawaayam mhm. euh, waxoon naa leen ni moom bokkul ci nga xam ne euh, donc day jivop du jivop du dellu gannaaw

xam nañu lan la wax ak lan la wara wax ak fañ la ñu war a teg seen tàkk ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñoom ñëpp ci seen taxawaay di sant ay waajuram tamit ak ay mbokkam yëpp euh, di féliciter la jeunesse sénégalaise di leen wax gàcce ngaalam si seen taxawaay mais rafet na nag donc euh, mention spéciale ah mes jeunes de la Casamance xam ngeen rek ñooñu ba léegi ba ñu ba léegi teggiw ñu tey la wàllu gën a aay waaw ba léegi ñu ngi leen sant leen gërëm depuis jëlee ko Ziguinchor Kolda Sédhiou velengara nga jëlee ko ba Kafountine de de Ziguinchor ak Kafountine bon travail mention spéciale ma gis naa ni yéen a ngi respecté consignes yi leen di wax blocus oto du dugg autour du jënd camion frigo du dugg camion frigo du jënd Kafountine c'est très bien jën bi moom du dem dal du jënd paralyser leen ko et puis après deuxième étape bi mooy deuxième étape bi mooy commerçant yi nek ci biir Kafountine kenn du fay taxe kenn du fay impôt ci état bi foofu lañ jëm ak yéen waaw deuxième étape xeex bi mooy benn commerçant benn commerçant benn citoyen sénégal doo fay impôt doo fay taxe waaw foofu lañ jëm ci xeex bi la bokk te ñu ñu ñu ngi koy door Kafountine dañu vérifier yëpp kenn du fay taxe le maire de Kafountine moom bu yeboo mu xam lu muy def quoi mais kenn du def fay juuti kenn du fay impôt kenn du fay taxe

ak cap 21 cap 2024 ak ma carte mon fichier yéen ñep ñi ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne gañ bu leen kenn gëmloo ni tour Ousmane Sonko nekkul ci liste électorale ay fen la ay katch ma waxaat leen ko encore bu leen kenn gëmloo ni tour Ousmane Sonko nekkul ci fichier électoral bi wala dañ ko jëne da mënatul dañuy fen dañuy katch dañuy duul voilà source bu leer préparé leen daas fanaan dañuy dem élection man maa lay wax lii fii waaw mënuñu musak waane ba duñu bokk ci élection yi barke salaatul faat li ma naan lu leer takk lañ ko téere patriote yi daas fanaanal pastef deewul tey la gën a dëgër tey la gën a tekk dinaa leen wax lu tax tey pastef tey la gën a taxaw tey la gën a dëgër dinaa leen ko wax ci live bi tey mu nekk révélation quoi voilà donc euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñëw rek di wax ne di interpeller Macky Sall euh, ce criminel là assassin Bobo, bon ce ce gars incompétent là euh, cet arriviste cet accidenté de l'histoire politique un arriviste waaw mon euh, Moustapha Diop le bëgg Moustapha Diop sa question bi de Boy wax rek xamal li ngay wax de fi de fi man nan dox mel wax rek waxal la hmm? comme vous bi loy wax na lay hmm? donc euh, di félicité ñëpp tangori fu ne euh, mention ci gudd ci tali yi la fanaan ci la ñuy yandu ci la ñuy xëy ci lañuy fanaan waaw xeex rek lu muy wax waxu dof yi muy wax ni mooy lan waaw yow yow waxu dof ngay wax waay ah jógal fii waaw donc euh, <clears throat> li ma am pour wax leen mooy xeex bi tey tey la la gën a tar tey tey la ñu war a gën a taxaw xam waaw hey waaw waaw alaaji waaw waaw jaajëf maa ngi maa ngi nangu ziar maa ngi ci maa ngi ci plateau bi nii waaw maa ngi ci direct bi waaw jaajëf hmm. waaw jaajëf xéewal hmm, hmm. ok donc dégg ngeen fi euh, L'Obs jën fi neen euh, tuuram dañ ko jëne ci list bi du bokk dugg na fi jëne bi yépp ay fen la ay kàcc tuuram mi ngi ci biir day bokk day bokk te ñoom xam nañu day bokk euh, te li ma leen wax du dañ euh, xam ngeen Ousmane Sonko xal xal safara la ci loxo Macky ak ñoom ñëpp muy Antoine Diome waa APR ñoom ñoom ci boppam c'est-à-dire dañ ci dugg ba pare ñi bëgg ci jënn xal safara bu tàgg jën da ngay téye euh, dem nañu barricade këram

ñom dem nañu yónnee fa yebal fa ndaw pour négocier waxoon naa leen ko fi xon dem la ngeen xol sama titre yi euh tey la def rejette tout compromis avec le pouvoir du dictateur criminel Macky Sall cest à Macky Sall kilifa diine la yebal wax ñom seen kilifa les soi-disant kilifa diine quoi mom la yebal Usman, ci Ousmane il va bien Il waaw ñi pas non non non mi ngi forme Il yàlla jëm kanam mu Il ñom dañuy négocier gis nga lu ñu négocier Ousmane lu ñu yone kilifa diiné ba pour mu wax ko waxtane ko ak Ousmane moy dañu ne way Ousmane buñ ko la nga tok sa kër nga politique nga bañ a wax ci politique bi nga bañ wax ci ah tranquille wala deuxième proposition bu fekk loolu amul ni, jële la fi exilé ko fan lañ Bissau mais dañu Guinée Bissau Omar amatul pouvoir Guinée Bissau perte na pouvoir bi Omar candidat Ousmane candidat le gars comme Khalid Ousmane son candidat boobu moo duma Ous moo écrasé Omar Mballo nangu assemblée nationale bi ci moom Omar Mbalo, coquille vide le coquille xam robot bu nekk nii rek rek ni. amul marge force bu manœuvre amul dara amul lan lu muy imposé Guinée-Bissau donc parce que gisoon naa ñi naan way la Guinée-Bissau rentre dans les négociations c'est pas vrai Elle est fausse est kàcce là. Ooh. wow, Whoa. Bang si jam. Mm -hmm. Wa mangi direct. Mm -hmm. Wow. Mm -hmm. waaw waaw waaw xaaral xaaral ma jëlee ci suuf xaaral Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mmh. Voilà. Je veux préparer

Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. yow ñibbisee ko yaa ngi foofu D'accord, ok Inch'Allah, allah dina ok jërëjëf <clears throat> voilà donc <clears throat> voilà. Mm-hmm. Ouais, non, c'est pas intéressant. Mamadou Sissé, euh, euh, arrêtez ces conneries de couple. Le mort le mot, mom la wax en direct. Am lenen luñ fi wax. Bu fekk lo xamné wax len ko en direct, je me déplace. Ne, ne, ne vous inquiétez pas. Li ma len wax non la Donc Macky Sall feu yonne ci Ousmane pour ne kilifa la yonni kilifa dîner, ah soit disant une kilifa dîner. yoy ñew di expliquer sa way déglu ko nous proposer wax ko pour bu dem mu bañ a wax ci politique Sénégal mu bañ wax ci réew mi bañ a mu togg rek ba benn deuxièmement bu bu loolu mu exilé ko Bissau mais Guinée Bissau bu mu koy exilé noonu dafa fàtte ni Macky Sall moom Omar Mballo xott la xottu gerte ga manam jëm bu taxaw la amul dara amul ben manœuvre pouvoir fofu actuellement Pertinent. na te ka duma fofu ke jël dola ji moy partenaire Ousmane d'accord bañ ko proposer lolu ñom ñu ngi dëgg duñu ko wéddi Ousmane daf ko né ben un duma bàyyi politique suma jënné damay politique dana wax ci réew mi te dina ko waxe ci tour sama parti mooy Pastef kilifa bu ne ko waa mais Pastef dañ ko tas mu ne ko non Macky Sall parti am la tas mais tasul Pastef ci tour Pastef lay politiquer te kenn mënu tere def politique parce que le ma digale ak Sénégalais yi dama koy respecté ba mu mat sëkk gannaaw yàlla ko yonent bi du ma wor kenn fa ma taxaw lay taxaw la ma leen wax dëmb laay wax tey de ñaareel bi mu ne leen Ousmane tontu leen ñaareel bi mu ne ko mu ne leen ñoom góor mu ne ko du ma place fii laa dëkk sénégalais la Sénégal laay toog fii laa juddoo fii laa màggee fii laa fila fii laa yaroo fii laa takkee soxna fii laa amee lépp fii laay toog fii daw fenn fenn laa demul fi lay tok jàmmarloo ak ñom fi ci réewum Sénégal bi loolu tontu waji ji mu ne ko signé wu compromis ak Macky Sall duma fi signé ben kayit ben kayit duma ko signé man Ousmane duma fi signé ay ay liberté provisoire fok duma fi signé dara ben kayit duma fi am duma fi accorder ben compromis ak ñom lii tontu quoi.

mais parewul pour organiser élection xam nga dañuy pënd naan wuy candidat APR benn bokk ak yaakaar Amadou Ba xoolal amuñu candidat ñom fu mu ne nii ñoom ñoom laa lay wax ñom APR candidat amuñu ko te Macky Sall def exprès parce que Macky Sall moo fi bëgg togat pour poser candidature te xam ngeen kan moy annoncer candidature Macky Sall pour troisième mandat sénégalais pare leen ngeen takk seen tubéy waxon na len ko fi Macky Sall dafa ne du def troisième mandat day fen day duul Macky Sall kat la kat la du waxkat dëgg narkat la mas Macky Sall musul def yoon day duul day fen waxon na len ko fi dof rek moo koy dof c'est le plus grand menteur de l'histoire politique du Sénégal day duul je ne vais pas faire le troisième mandat piti xam nga kan moy annoncer troisième candidature Macky Sall Ismaël Madior Fall bind len Ismaël Madior Fall mon moyen annoncer candidature Macky Sall le major Fall te sénégalais na ngeen préparé wu troisième mandat buñ ko annoncé film Macky Sall fa la taxawa ah. nee après lolu boudé Ousmane Nangou na lolu après légui euh 2035 mu organiser ay élections transparentes li la Macky Sall bëgg li ku leen wax leneen amul li la mon Mansour Fay, Macky Sall bloqué Mansour Fay. ci candidature Macky Sall ma Macky Sall bloqué Ba ñoo ay détails la tax problème c'est Ousmane Macky problème Macky Sall problème patron ñi ñi daf leen parce que dafa jaxlé dina ñëw ci une barre donc négociation bi ñom ñoy négocier Ousmane Sonko n'a rien à perdre gis ay télévision groupe ak fi di wax petit parti ay comme Macky Sall du ci wax fen rek c'est-à-dire fen mom ñom légui dañ ci ay président buy fen ay ministre di fen avocat juge ay politiciens ñëpp fenkat lañu ay militants dañuy fen nga ñëw ci kilifa diine dañuy fen ñoom ñëpp tout tout monde kenn du ci wax dëgg parce que ñoom dañuy unise péto ak Macky Sall teg Sénégalais yi diil moo tax li ma leen am pour wax mooy na ngeen fàttaliku pare leen de ngeen bàyyi seen xel. Touba magal bii dinañ ko planifier bomb lañ fay dóor mu takk ñi jiñ ko waa kër sëñ Baara. ak patriote ñi ngi dossier dossier dossier CPI bi mi ngi Antoine ngi dossier tay fu mu le procureur là, mi a un problème ak magistrat procureur yi eh, ay patriote de magistrat procureur bi taatam mi ngi mi ngi ci xal xal bi ci la bu ñu boyal wala gaz ci gaz parce que nous gis nañ injustice actuellement magistrat ñi ngi fu mu ne ci dossier bi nga xamne lepp li ñu Ousmane Sonko injustice attends ça commence à grogner mon le procureur là tata ma ngi jër fu mu ne ni te ñom ñom ñom APR ak ben bokk def nañ ay réunion réunion bo xamne poisson ngi ci ba léegi seen candidature amul kenn kuy jënd taxaw ne fii candidat la fii Macky Sall la te bés bu fi Macky Sall annoncé candidat ñu déggal seen ndey troisième mandat du am fii foofu la Macky Sall Macky Sall nee na dafa dafa bëgg a bett gars day def ba dernière minute mu dugal na ngeen bàyyi li ma leen wax mais problème am mooy Ousmane léegi ñoom dañ ko bëgg a dellu day dellu kër mais dañ ko bëgg a barricadé mais barricadé sa boo leen ko barricadé cette fois ci

ñom ñoo seen complot complot bi këpp seen kaw ñom ñoo négocier Ousmane Sonko ne demandeur de rien absolument rien fi journaliste bu jog Ousmane Sonko mo ñaan patron de presse bu jog Ousmane Sonko mo ñaan chroniqueur bu ko wax day fen ñom ñoo de ki ñu kilifa waaw kilifa de mu ñëw jaaga jaag Ousmane Sonko daf ko tontu tontu bu ñagas et puis mettre ko les points sur les i ba par xamal ko ni xoolal dafa am ligne rouge boo xam ne war wow kenn ko qu'il waaw jox naa kilifa diine mais kilifa diine nañ ma jox cër man nañ ma respecté quoi te dafa am ligne boo xam ne kenn du may ku koy ku koy franchir quoi il a mis les points sur les i parce qu'il a compris maintenant que ñom ñu ko diil ñëpp la ci téléphone bi seen ñom ci téléphone bi il a compris maintenant ce qui se passe tax activiste ñun ñi nga xamné kon li lay wax la ñom complot ci ñom ñom tout le monde commencé ko Touba ni ñass ñom tout le monde ba ci la ñom complot tout le monde ñom ñëpp ñoo complot pour s'en intérêt pour s'en banner bakkan waye du pour intérêt sénégalais yi fi intérêt sénégalais ñom waaw ñom ñi naan kilifa diine kilifa jamono buñu kenn fàttali ni sëñ libéré kenn seigne kenn tay buñu kenn faisons bu la fat ak seigne nous mo libéré kenn Ousmane fokof la deful sinon enfoncez Ousmane Sonko la def le lu dal ni ni Mom la ni ni ni ni ni li dal sénégalais yi ni ni ray ni ni ñi tay di ni di toroxal ni ni la seigne ni bu kenn libéré kenn ni intervention amul intervention combat bi ci may kenn parce que ñom may ñu respecté wu ni ni ñi ñun ni ni oui allô. Allô. oui waaw. tànk yi tànk ñu ngi barricade bu leen kenn may lu koy barricade namu fexe ban def fa loo xam ne ku barricade dee. waaye ma ne te nga génne boobu ñu koy génne seen màggal la ñu bëgg a sauver. ma ne màggal bi la ñu bëgg a sauver ak yooyu yëpp. Uh-huh. dugg ci dëkk bi. Mm-hmm. nanu bloqué nanu bloqué lépp loo xam ne dañ ko war a ba nga xam ne dara dugg seen i fu tappale yooyu ngay dara tax ñuy def di lu dul bëgg euh, kii yu dugg camion yu dugg. xaalis rek xaalis xaalis rek wutuñu yàlla wutuñu yonent bi gëmuñu dara. Ah, te te mu kenn nangu buntu këram kenn di ka barricade parce que dafa war a dem faju ji. waaw mais c'est ça y'a pas de barricade ku ka barricade dee. non ku barricade dee. ku barricade dee ci taxaw. ku barricade dee. Ah. taxaw nun na xale yi fi ñu nekk nan fa nekk nan bloqué dëkk bi. tant que may lii jàmm. bu ko kenn may jàmm même bu Ousmane Gueye bu bu bloqué dëkk bi waaw Casamance moom li mu ne te nan ci nekk nan bloqué dëkk bi bu dëgg dugg ndax ay doomee am la ñu ñoom ñëpp ñoo seen historique seen intérêt bopp rek taxaw ñu sénégalais yi taxaw ñu taalibe yi ñu diine bi seen intérêt bopp rek moo la tax a seen intérêt bopp <coughs> je m'excuse lii li bu ñu bàyyoon ci mois de mars bu ñu bàyyoon ci mois de mars kon waxuma la Ousmane mais ñii dee ñii dóor bal ñii dee ñëpp kenn du fi kenn du ci moo ci dugg moom mu Moutaga moo ci dugg kenn duggloo ko ci moom moo ci dugg woo ah, na ko te ñii dee yëpp mu ngi ci ndoddoma bañ na ba mu ne dama dama amee leen bor waaw bu Macky Sall ñëwee nga tëju ak moom ci néeg wax ak moom bu Ousmane Sonko ñëwee nga teg ko ci penc mi jël jël toj toj Macky Sall yëpp bu ko sëf Ousmane. wa fi mom lay fi ku mu naxaree nag nga xal ge ji quoi nga dem dugg quoi kuy taalibe bu taaw bu la naxale nga tabax ci jaww ji quoi way def lu ne weng fi ba par ngeen kenn du ko ñom ñoo ko diil ñom ñoom bokk nañ ci deal bi ñom ak ñom ñom ñep tout le monde sans exception fi amul lu ñuy nëbb fii da ngeen am sa barke sala buma ma jotoon téléphone bi wallahi ñi ñi futeeku taatu neen ñëpp laay dóor ci internet ci réseaux sociaux lepp lay door sen vocal yëpp lay tigi teg waaw parce que ñun nit bandi salté duñu jité quoi way doolu ñu jiite c'est fini parce que li ngeen di bañ négociation bi sen réputation ngeen bañ mu yaxu dana yaxu parce que yéen a ko def yéen a ko wax yéen a ko def dama leen amel bor waaw di ñu amee bor yow boo xam ne doo ko fay kañ nga koy fay kañ ngay fay bor bi sëñ Mountakha ñii dee yëpp yow la boo ci jëndoon kon ñii duñu dee deal business rek ngeen xam Bass Abdou Khadre day dóor yi assis ba réer taxaw fii ci di jëma dof dof fii ak mbaax bandi la taat rek la gëm allo <laughs> non ba c'est vrai ah waaw naka ko naka yitee yaa ngi ci sant. waaw grand débat man moom dama bëgg a xamal sénégalais toujours rek ñii li ñuy xeex sa dépasse la personne de Ousmane. wallahi te franchement parler sénégalais ñoo war a yeewu xam ne liy jot jot na ginnaaw dee quoi. waaye wax nañ ci côté bu ne jot nañ ci côté bu ne laay bëri amul lu ñu jëful ñoom Dabaax ñoom Akhenaton ñoom Jiji am nañ ñoom Kayz foofu tout tout tout ñëpp wax nañ mais nit ki nag boo yeewoo ba pare te mënu ko jëfandikoo c'est zéro nit ki donte yee nañ la yee nañ la mu ne li jël ci say mbir mais yow toll Macky Sall ak benn groupe de personnes bëgg accaparer tout le Sénégal même pas deux cent personnes jàpp ñu en otage di leen def leen neex suñu rakk yaa ngi chômé suñu mag yaa ngi chômé sénégalais mënuñoo dara ci seen bopp rien rien rien rejoindre les quatre les deux bouts sax mënuñu ko sénégalais ils sont fatigués mais ñàkk nañu ñàkk jom goo xam ne man je peux pas comprendre yow say morom dëkk yëpp ñëpp a ngi libéré seen bopp yéen ngeen toog yéen déedu ngeen libéré seen bopp bëgg nangu nooteel mais xamal tamit communauté mouride communauté Tidiane communauté Niassène communauté Laye mais am leen jom li lay wër suuli am leen jom sonal ngeen ñu yéen génération euh, euh, mara yi fi nekk nii soi-disant maara yi fi nekk nii mais yéen tekku leen dara dara dara dara mais au moins bu ngeen bu ngeen ñu joxul ci ñun population bi mais xool leen seen morom bi ngeen fi nekkal seen moromu communauté bi ngeen fi nekkal muy muy muy doo leen dëkk ci dara déggoo leen ci dara dara dara doo leen dëkk ci tooxi doon dëkk ci ay complot doo dëkk ci ay njuñ njaay bu ngeen ñu ñooñu bu ñu rusu ngeen rus ñooñu nga xam ñooñu seen nawle la ñu mais solo ngeen ñu da ngeen ñu fàtt may gën a xamal ne communauté Mouride li laay warusul yéen yéen yéen yéen dañu ñu fàtt ngeen ñu trop lu ñëw yéen ci gën a fës yéenay fal président yéenay libéré prisonnier mais à quand à quand di xam seen bopp may ñu suñu jàmm libéré ñu Sénégal Hein? mais may leen ñu suñu jàmm. la de. c'est pas Sénégal. de c'est pas Sénégal Touba Sénégal. Touba moomu Sénégal Sénégal. mais may leen ñu suñu jàmm place xam place place. jël Bamba ko ci ay politique hein? Hein? Bamba Bamba falu Bamba la falu ay wax Bamba lu nit ku baax da nga war toog muy dox da nga toog muy dox te booy toog nag muy dox doo xam da nga da ngay mujjee fakkastalu Abdou Khadre c'est un imbécile c'est un lâche day tux ashish Abdou Khadre day tux ashish tat lay def def lu day def lu raw loolu kooku day def lu raw loolu gal gal bu mool gal bu mool mu galgal la gal bu nekk bu bëgg a xam sa slip nu mel ab gaayan bi barke Nabil Moustapha moromu sama moromu jeunes yi laay waxal nañu toog. ay clochard yi mel ni ñooy toog fii di ay doon seen assis béréer taxaw naan waaye euh, euh, réew mi euh, Bamba falul fii doo fal. Bamba dafa dugg da nga soxla lépp li dal waa Touba Bass Abdou lépp lu dal lépp moo dugal paa bi moo tax paa parti crédibilité paa Macky Sall nak mom Macky Sall rêve rek quoi Macky Sall franchement par mom daf naa day day jékki-jékki rek mom day mom day tipse quoi wala day jël ay bouteille butéelam jékki-jékki rek. kooku la nga vin rouge lay naan. Macky Sall moom. moom mu ngi imaginer moom bu éliminé Ousmane moom bon par hasard quoi bu parce que du ko mënul mais par hasard bu éliminé moom bu éliminé Ousmane après ban Sénégal lay jiite mom waay yow. ban Sénégal lay jiite. Mané hein? Mané Macky Sall dafa bëgg tok bi 2035 élection yi bu amul amuñu candidat loolu. loolu bés day nax boppam bés boo loolu yëpp moom moo ko créé loolu yëpp moo ko créé ñàkk candidat bi ñàkk ànda tam tey moom moo ko créé parce que moom tey fu mu toll nii ñu ànda sax tegu ay nit ay naw leen Macky Sall euh, mu ko wax dafa foqale Macky Sall la il faut nag ñu seppi loxoom ci ndab li il faut ñu seppi loxoom ci ndab li seppi ndoxam ci ndab li mooy nañu jóg jàmmaarloog moom

kon nag désormais grand débat dama la dégg sànq woo affaire bu grave mooy li ñuy waxati li ñuy defati suñuy plan d' action dafa ñu ko teg ci kaw internet ñëpp di ko xam. plan d' action kenn dootu ko waxati ci Facebook wax duñ ko wax ci direct duñ ko wax ci panel yi. sax mooy yoon parce que ku ñu xam si nga jëm ku ñu xam si nga jëm doo yegg waay. waaw ma lay gërëm di la sant daal di ñaanal Sénégal di ñaanal ci kaw ci kanam ko ba mu sans exception yàlla yàlla toroxal ba nga topp weer la bëccëg ndar kam kam kam waaw président Ousmane Sonko ci kaw ci kanam ci lu baax yàlla na ko ci ay noonam toroxal ay noonam bu baax a baax ci barke Seydina Mohamed sallallahu merci merci wax ñu ne leen bu wax léegi ñoom ñu toog bu kilifteef ngemboo drapeau l'islam taxaw di ñu gëmloo nag na ak seen i koppati ak seen i euh, seen i koppati ak seen i euh, euh, kii xaw ma cakko ñoo di naan waaw waaw waaw ama ba sole waaw waaw ma ma waaw sallahu fa foog dara ay dóorukati bon lañu ay tuxkati assis lañu man naa leen ko wax cat la ñuy def ni xaj ñoom diir rek fi mu ne nii milliards yi ah magal bi de moom def nañ quatre milliards wutuñu yàlla wutuñu yonent bi amuñu yërëmande ci taalibe yi amuñu yër mais xool leen bordel bi ne am foofu jaasi ñi gor jigéen ñi gor la jaasi jaasi

parce que ay banding ay banding ngeen amal affaire bandi yoyu di xex pour réew mi tax jaar ci yoon ngeen ne dedet yeen réew mi du jaar ci yoon tok muy dox motax Ousmane wax ko ko yag nañ ko wax mais xam nga nak ku ci nek niñ la yaree la quoi waaw mom amul problème de mom mu ngi len jox na len seen cër benen fess del wallahi walzim façon bu nek wax na ko mu ngi muñu rek donte xam na ni ñi bëri liñ koy ñi ñi kërankër bi ay sóob la mais mi ngi muñ rek delloo ko ci yàlla waaw dem na ba mu naan way képp ku euh, euh, attaqué seen bokkul ci man waaw c'est normal c'est normal kooku wax na dëgg mais ñun ñoo jël suñu responsabilité ñun bu ñu dayee ak suñu bàmmeel ñu taxaw ñu wax dëgg bi li am waaw. asalaamaaleykum waaleykum salaam nu mu demee. naka affaire yi. sant yàlla bu baax ma ne. waaw. traîtrise sénégalais yi ñuy gars di wax. waaw. yàgg na Sénégal da baax. yaa ngi dégg. génocide Caaroy 44. Hmm? Mm-hmm. fekk fu woon sëriñ si mm-hmm. damay laajte waaw ay nit ay soldat xeexal euh, France mm-hmm. ñëw toog ci biir Sénégal bu fekkoon dañ leen rey à l'extérieur sax mën nga ne mën ñu leen revendiquer seen ay droit ba baax nekk biir Sénégal caaree googu lañ leen rey waaw moom leen <laughs> moom la benn sëriñ bu ci pipe un mot président euh, Ibrahim Traoré euh, euh, Burkina lolo wax Macky Sall Macky Sall di xaru. moom mo mu ngi koy tudd bu ñu ba président wu Burkina. Hmm. diko diko mentionné. mo nga dégg Macky Sall fu mu toog di ko hmm. wala keneen wala wala président Ablaye Wade wala wala Abdou Diouf wala keneen wala keneen. wa ñoo ñep ay top lañu. ah. ci des topp nek ay martyrs ñoo non légui gas nañ leen suul ray nañ leen. amul benn sénégalais bu ñu mus a taxaw ne France dégage ci lool noonu parce que loolu génocide la ko asa tax rey ay nit ñu doon revendiquer seen ay droit ñu gaf leen suul fii nii euh, chaque année pourtant dañuy dañuy célébrer ay ay ay victimes du Shoah affaire yooyu noonu waaw du dëgg waaw parce que ñoom ay nit ñu weex lañ mhm. parce que ñun nit ku ñuul moom moo bëggul nit ku ñuul nañ ko wax te dee <laughs> wax naa ko fi démb de black ana ana ana ana ana yi doon xeex Ablaye Wade. Ah, ñoom ñëpp sey nañu ñu. ils sont où. Mm-hmm. ah. Fou mm-hmm. Malade il est ah. Thiat il est où. Kilifeu il Jini Baxdaat il est ah. keneen ak keneen su may lim su may lim du jeex. ñu jàpp seen frère des rappeurs comme eux. Abdou Karim Gueye depuis ngi ci kaso bi nit dof depuis lors mu ngi ci kaso bi.

ñoom nee nañ rab musique musique mbett la musique euh, révolutionnaire la nangam sàngam ñu jàpp say ñaari nit tëj leen ci kaso injustement ngay dem di gisanteeg président de la république waaw di diisoo ak moom mu leen di jox xaalis hmm. mais ñi ko def bett ñu ma parce que tey ku mel ni ay ay tafadien di récolter des millions sur le dos de sénégalais parce que benn dóorkat la moom moom dóorkatu marto la Mhm. di wër di dóor ñun ñëpp xamante nañ man li may wax mën naa ci pointer du parce que xam naa leen bu baax xamantuma leen yaa ngi dégg mhm. euh, nit bu bu suurul démb li olof yi di wax rek ku suurul démb bu xaalis génnee rek goret day am mhm. yaayam dund na ba génn àdduna na ma yàlla baal mosul am fukki junni yu moomal boppam moom ngóor soof noonu kon li di xew senegal ay doomi goree bi man damay am sax doute d'abord est-ce que la traite négrière est-ce que histoire bi ñu tubaab bi jàngal ñun mhm. au niveau de de l' enseignement mhm. est-ce que est-il vrai cette histoire là est-ce que ñun tubaab yi dañoo ñëwoon jàpp suñu maam yi forcément yóbbu leen est-ce que du ñun ñun ñoo demoon di jébbulu ñu ñuy jox ay pocket ñu naan ok maa ngi dem volontairement ah, est-ce que dëgg la est-ce que histoire traite des négrières dëgg la parce que man Sénégal gëmatuma seen ay histoire ay fen rek la ñu fondé rek man j'ai des doutes à quatre-vingt-dix pour cent que angaar boobu ñu defoon gore gars yi ñoo jébbalu ji woon ñoo doon dem ñu leen di jox weccet ñu takk seen bopp di dugg ci bato bi ñu leen di yóbbu man loolu laa xam nga xam nga bañ ñu njëkk a def xam nga fan la waaw karaban très bien ñu toj ko ñi xeex leen dañ ko toj waaw. teer voilà kon yaa ngi kon yaa ngi may fekk si li de. Kalaban Kalaban maison des esclaves Kalaban lañ ko jëmoon jëmoon samp ñu déggal ndey tubaab yi ñu jóge foofu foofu. parce que ñooñu xam nga ñooñu bëgguñu ko leen jàpp jàpp. non non non ñun moom kenn colonisé ñun moom macha allah. kàlla moo tax it lan bañ rek. li nga ba baax. Mhm. li mhm. lu ñu war a bindaat la le professeur Iba Der nañ a bindaat parce que histoire yi c'est du des waaye yow ma ne ko ci seen waaye yow histoire falsifiée mais man j'ai des doutes que ne tubaab bi dañ ñoo forcé woon pour ñu yóbbu ay esclave yi dama ci am ay doute fi toll parce que nag ñun tubaab ñun histoire li neex tubaab bi lañuy ñuy jàng ñun tubaab bi dañuy def ay affaire def ñu ay dil dem bind seen ay rapport ñu koy jàng ñun ci école yi ah jàng des fausses histoires loolu la rek mhm. parce que boo xoolee jikko sénégalais yi yi ngay gis tey jii nii ni nu nii nu taxaw ko Ousmane koo xam ne ni dane man bu fekkentee ne nit gis na benn dërëm boo xam ne mës naa koo sàcc wala lu ma moomul na ko wax <laughs> na na benn xalif général génn wax loolu doo ko dégg de hmm. je défie nag tous les xalif généraux na benn xalif général génn ne man musumaa jël dërëm bu ma moomul je vous défie tout tout tout tout voir Tivaouane Touba nu mu tuddati Medina Thiénaba Seck je vous défie yéen xalif général yëpp génn leen ngeen taxaw ne mosoo leen jël dërëm boo leen moomul ngeen waas ko. ngooñ rek seet wecc taxaw wax lool. barke na ba ngeen juddoo ba léegi mosoo leen dégg nit nit ku leen wax lool. ba ngeen juddoo ba léegi ba àdduna commencé Sénégal ba léegi mosoo leen dégg gor bu taxaw na leen ku mu mës a xamal ne mës naa laa jëlal dërëm ñëwal taxaw wax ko doo ko gis de. donc mukk raar nit ku ra nit ku raar mooy wax lool. ñii ñu fiy topp ñëpp naan dañoo ragal yàlla nañ génn wax loolu kenn du ko wax koo ci gis luubal na teeree jàmbur wala taalibeem bu faatu mu jël teeree yi toog wala mu nangu jabar taalibe wala mu takk jabaru taalibe waaw wala mu donn donn alalu taalibe mm-hmm. Mm-hmm. wala mu jël alalu góor jigéen lekk ko mm-hmm. wala mu jël alalu dóor kat banque ku détourné ay milliards bank jox ko mu lekk ko ah, ah eh, bu ñu eh. demee ba tiwaawoon tiwaawoon di nungu di nungu adje Aziz Ndiaye koo xam ne ci luubal la nekk Maodo doonoon nit ku ragal yàlla mhm. ku bañ lu bopp buñ dee ba ay sëtu Maodo di jël alalu bayti maan di ko tabaxee seen jumaa jooju noonu ngeen xam ne <laughs> war ngeen xoolaat seen bopp mhm. war ngeen adduna bi nit ñi ñoo war a xoolaat seen bopp alalu bayti maan ngeen jël di ko dugal ne yéen ci néegu yàlla ngeen koy def mhm. da baax Sénégal bombe à retardement la bombe à retardement xoolatuñu lu baax xoolatuñu lu bon il s'en fiche des gens léegi nag dafa am benn parti boo xamante sa bii nii ñoom xaw ma dañ leen liggéey xaw ma dañoo bëgg bon rek non te yàlla tax ñi nga xamante si bii nii bëgg nañoo parce que di nga rabaax affaire kër diine yi bëgguñu nit ku yeewu mukk soo yeewuwee dañ naan da ngaa bon wala ñu ne da ngaa torox wala ñu ne da ngaa da nga da nga génn ci diine nangam sàngam il faut ñu utal la benn étiquette parce que bugguñu liberté bugguñu nit ki jaamu yàlla yàlla ji nga xam ne mooy yàlla yàllaay kese bugguñu ko. ñoom dañuy bëgg a leen di yàlla dimbalee ba nga ci loolu di jaamu yàllaay kese da ngay am problème biir Sénégal Sénégal ñi fay yàlla yàllaay kese dañu am problème. wax nga dëgg de. Eh, dañu am problème. santiruñu dëkk biir Sénégal dañ leen di noot. ah waaye yow. ñu gëm yàlla dëgg dëgg dëgg Sénégal dañ leen di noot. te ñu ne la salafiste. wallaahi dañ faa xam wahabi salafiste. <laughs> ibaadu ñi dund yàlla dëgg. Sénégal ñi fa ragal yàlla dëgg. je te dis kii kooku xoolal amuñu fa jàmm. Mm-hmm. képp ku fay dund yàllaay kese amoo fa jàmm. Mm-hmm. moom kay da ngay dund mu baay bi di ànd ci li ñuy def seen ay ziar général màggal ga. gàmmu nga woy léegi bokk nga yow sénégalais pire nga quoi yow ku baax nga quoi. mais bu fekkee ne yow toppuloo nit yàlla rek ngay topp non yow ci étiquette yow sax dañ naan nit safara. waaw ne nong ci kaw nag safara la quoi. ne nong ci kaw. sol sa ngandu maam garam bon ak ngandu maam caaya yool benn course kilométrique. parce que parce que waaw. bugguñu bugguñu sénégalais yi yeewu. ñoom ñoo téye Sénégal gis nga da nga bëgg a dëgg-dëgg. lu ñu tardé yëpp ñoom ñoo ñu tardal ñoo téye Sénégal ñoo ñu tardal. wax dëgg yàlla ñoom ñoo ñu tardal boo seetluwee boo seetluwee. billaahi. ah eh. bi ñu téyee Ousmane xam nga ban stratégie la ñuy dawal. xaw ma eh. yéen a ngi koy seetlu xam xam nga làmb làmb gëjoon na am. waaw. fan yi ñu ngi jëlaat booy yu ndaw parce que VIP yi booy yi weddi nañ leen kenn du dem seen làmb. waaw. ñu jël booy yu ndaw yi di leen tëgg ay làmb loolu moo fi war a jeex. lamb ci ci boppam moo war a jeex. pour bañ booy jug non non non ji nga jaru ko da baax. di nga ku lay wax sangul sa taar la bëgg. waa wax lii. boo yooyu di leen topp lekk ñu naanu seen yaay ñooy jaay ay jaaf ci mbedd yi di leen dundal. Uh-huh. ak ay café Touba ci rond di leen dundal. Uh-huh. xëyu ñu gontuñu. Uh-huh. wala bu ñuy xëy ay deux mille francs la ñuy am trois mille francs. ñooñu la ñuy woo naan leen kaay supporter diw booy nangam boy tëgg ay booy di pour pour. feesalaat stade yi ci fan fan yi ci loolu lañu nekk maa ngi gis bërki démb ay Pape Malick Ndour lañ tuddeewaat ay làmb booy yi kiyaat ñu ñu ñu bëgg a diver euh, euh, divertir booy yi mm-hmm. nag c'est leur problème a da baax ñii di woote ñii di wax ñu ngi sant yàlla mm-hmm. ñun kenn nootuñu mm-hmm. alhamdulilahi rabil alamin kenn nootuñu yaakaaruñu kenn tagguñu kenn Sénégal booy yi fa nekk yëpp ku koo ci dëkk micro maa ngi sant sam papa Aziz Ndiaye la lay wax wala maa ngi sant Lat Diop wala maa ngi sant euh, nu mu tuddati euh, ba Matar ba. Mhm. wala ci nekk Amadou Ba. jeex parce que liggéeyuñu xëyuñu. ñu yettuñu yalwaan la ñuy dundee. Sénégal yàlla ay góor lëmm ponkal lëmm mat ay góor koo ci dékk micro. maa ngi sant sam da nga gis ponkal maa ngi sant sam papa Aziz Ndiaye. waaw maa ngi sant papa Wali Seck. billahi. loolu la Macky Sall yow nga war a ñefe Sénégal am li ngay am ñu doonoon ay gor suñu yi nekkoon ay gor da baax daaw ñu ñaan daaw ñu gërëm ay ay ay ay seen moroomu góor xëy liggéey teel a xëy guddee wàcc da baax Sénégal boo boo ci soxla ah, boo boo boo ko bëggee woo bu neuf heures jotee fii dix heures doo ko a woo il faut nga bàyyi ba deux heures nga mën ko woo ndax mu yeewu booy du ñu yeewu neuf heures du ñu yeewu dix heures Sénégal jamais booy deux heures trois heures la ñuy xëyal hmm? suba nga woote Sénégal huit heures fii wala neuf heures muy sept heures foofu wala dix heures n'importe quelle heure boo fa wootee doo leen jot. Hmm. parce que ñu ngi nelaw dañuy nelaw ba seen taat tànk ñu xëy na dañ koy dem lijjanti ji gisi Lat Diop wala ñu dem gisi nu mu tuddati Amadou Ba wala eh, benn Pape Malick Ndour affaire yooyu noonu mu jox leen benn cinquante mille loolu loolu la ñuy dund. da hmm. baax nañ ko wax te dee. Macky Sall dafa jël suñu valeur. xam nga ñoom dañ ne Sonko day yàq ay valeur Macky Sall dafa jël suñuy valeur yi nga ah, xamante si moom la ñu Sonko de Sonko de bu dee Sonko day yàq ay valeur de bëgg naa lu ma ñëw rek xale yi jigéen ñi yow xoolal ni ñu bonee tey bii nañ ko wax te dee fecc bu bon sol bu bon soirée taxawaalu ñu leen di géeloo ay théâtre di leen abrutir di leen dofloo pour bëgguñu ñu ñu xam richesse bi Sénégal am ak révolution bi war a am bu dee xale yu jigéen ñu ngi leen di ñu ngi leen di woyloo ñu ngi organiser ay ay soirée concours way soirée sol lu bon pour bëgg ñu ñu yeew suñu rakku yu jigéen ñi. Mhm. tey jii bu ñu demee ba Sénégal lii situation bii di am Sénégal ba baax boo demee si plage sénégalaise bi day fees dell keroog laay seetaan xaw ma a baaxoo ma def ay micro trottoir way naka plage bi naka mel mais ñun ñii la ñuy xeexal ñun dëkk. waaw ñii la. ñu ñii ñooy lañuy kaasal ñun ñii lañuy waxal ba mar ñu non mooy ñoo ñooy ñoom ñooy doomu xaraam yi ñoom aba ak ñooy yi ngay gis noonu la aba non ah. stress ak ñoom yi ñoom yu sundu rek seen télé yi kër da baax dañuy waxante dëgg am na Sénégal toll que nit nit ku conscient war na di dem ay place di tëdd di njaax nañu waxante dëgg quoi naan da ngay divertir u naan noonu dama ñëw pour <laughs> xëccëgal sama xol quoi xam nga nangam sangam yow réew moo xam ne biyee nañ say richesse yëpp téye ko jël say milliards yëpp gas ko suul nëbb ko paacoo ko di la jox ay meeb nga ne yow tal nga dem di tëdd ay plage parce que am nañ benn doomaraam bu mel ni man buy buy xëy fii quatre heures du matin di leen yónnee xaalis par weer léegi nag man li ma bëgg mooy muud yi nekk fii soit muy États-Unis soit muy Suède soit muy Angleterre soit muy France yéen laay waxal yéen a yéen nag da ngeen a ñàkk fayda parce que dëkk boo xam ne nii yéen da ngeen bëgg dëkk ba avancé te waa dëkk bëgguñu avancé te saa yu weer deewee yéen leen di jox ñu ñuy lekk yéen leen di dundal téye leen seen loxo téye leen seen loxo parce que nag yéen a ngi bëgg a ñàkk fayda ah. Sénégal yéen xaaj bi quatre vingt pour cent yéen lañ yaakaar boo leen téewee seen loxo xoolal un mois Sénégal day am problème te doo ko def kuy ngénte yéen lay woo kuy dëj yéen lay woo kuy saraxal yéen lay woo kuy ndey la yow lay woo ku ñu la yow lay woo. kuy ndey la lay woo kuy bàyyi la yow lay woo. kuy màggal yow lay woo kuy gàmm yow lay woo. te ñëw jug xeex yéen moo di yéen li am Sénégal sax seet da ngeen ci am part de responsabilité ci am part fii ñëpp am njaboot mais dëkk buñ ñu ko naree defal dañ koy defar ci dëgg. te muy dëgg. xoolaat leen seen doxalin yéen immigré yi xoolaat leen seen doxalin lii di am Sénégal yëpp boo leen seen loxo. bu ëntatee un mois économie bi loolu dootul dox. Sénégal yi nañ xam ne jug liggéey jot na. kilo soble deux mille nañ dem rek kilo ceeb di ngeen dem kilo ceeb bi di ngeen dem mille franc lay jar. barke salaatul mais mais ñooñu di jàmbat kilo soble deux mille ñoom ñooy dem soirée wàllu fekk da baax. ñooñu ñooy ñooy feesal soirée ci ab fekk yi am ci banlieue yi yaa ngi may dégg. oui. xaalis boobu ñuy demee nag dañuy am benn con moodu moodu bu nekk fii di liggéey di leen ko envoyé. te ba léegi Sénégalais yi xoolal móor yi ñu ngi def loolu man teg naa dama ciy gis sama bët ba léegi nii. xoolal ma di yónnee ay téléphone di dof dof booy nunguñu jox nunguñu xeex nunguñu dox ci dëgg. loolu leen far ba ngoom far ba ngoom di di di di sàcc di jël suñuy milliards di gas di ko suul. waaw yow man loolu dama ci am ay firnde yu leer man du ma waxantu tabax. billaahi dossier dossier boobu dañ ko war a liggante booy sa waay dañ ko war a liggante quoi. dossier boobu. billaahi wallaahi wa taalaahi. dañ ko liggante. ay milliards la gas ci benn kër dugal ko ci ki ma ko wax moom moo xool par vidéo lañ ko envoyé mu gis ko woo ma wax mu ki ma ko wax nitu nitu daara la xamul caaxaan barki alxuraan kari. sénégalais yi continuer di dof dof lu nag boobu ba léegi te leen di seetaan da baax yow sa waa kër boo bëggee ñu añ reer dinañ añ reer grand du dëgg mhm. manqué woo loo lekk alhamdulilah macha allah man mii di wax ak yow noonu keneen noonu keneen noonu ñoom ñi nga xam ne ñoom la kilo soble di jar mille francs ñoom da ngeen leen di seetaan bu ñu sonnee dañ jóg xeex maa ngi jéggulu ba beneen yoon na dëgg de sénégalais bu tàngoon ñu jóg mais parce que ñoom dañuy am li nga xam ne euh, am na ñi nekk fële bu weer rek xam nga ñun moom balaa ñu mën a dalu fokk yéen ngeen am. waaw hmm. loolu la quoi loolu la donc patriote fii la combat bi toll waaw. grand débat. waaw nu mu demee. allo. ba jàmm. waaw jàmm waaw mbaa si jàmm. waaw waaw waaw vite fait ma ooy li mu wax yëpp dëgg la mais combat bi toll na foo xamante ne nii. Hmm. waaye di ñu wax moom maa ngi jégalu bu baax quoi dabaax grand bi mais ay mbër yeeg ay li am Sénégal loolu ñun ñëpp xam nañ ko Ousmane ça fait cinq ans nga mu ci wax bu ci mënul dara ba léegi ñun du si ligne bi la ñuy nekkee fii di wax waa Sénégal ci lu ñu nekkee ci ay plage yooyu combat bi fu mu toll fu mu toll mooy nu ñuy defee nu ku ci nekk sa secteur moom mu yox ba amoon dix booy secteur wala quinze man mii keneen ak keneen comme ni ma amee ku ci nekk ñu jéem a def Ville Morte jàppale Ousmane ci combat bi. Mm. parce que combat bi tollootul ci ay wax. Mm. ñun li passé sa passé li am Sénégal ñun ñëpp gisandoo nañ ko. kon nekk ci ligne bi saa su ne pour bëgg ñu di ñu jéem a wax la wala ngay découragé ñeneen ñi ne ñii Sénégal jaruñu xeexal ñu ne ci plage yeeg ay yeeg ay lamb yeeg mais kon léegi dañuy bàyyi Ousmane mu tëdd fi mu tëdd ñu sacrifié ko sacrifié njabootam. Mm. mais gars nañu xool bu baax li ñuy wax bu ñu duggee ci ligne bi xam ne moment combat dafa am ñu soxlawuñu ku ñu revue de ñuy def ni ay revue de presse ay Mody bu ñu yónnee bu ñu lii bu ñu lii ku ci nekk noonu na nga dix wala quinze booy sa bopp koñ nga financé leen ñu génn jàpp ci combat bi. Mhm. bu ñu ñëw ba fii ku ci nekk di revue de presse ci ligne bi pour jàpp pour sacrifier Ousmane wala njabootam. te ñi ñoom ñi ko yor seen loxo barki alxuraanu karim ñoo gën a jaaxle ñuy jaaxle xamuñu nuñ koy bàyyee mu ñibbi ñoom ñoo gën a jaaxle kuy jaaxle. parce que mhm. façon compromise bu ne ñu ngi koy dem ci Ousmane ku ne ñu ngi ko fay yónni Ousmane li mu leen waxoon démb ak tey laa leen wax du ma du ma amul benn accord bu ma leen di signer Mhm. amul benn accord lu ma leen di signé. loolu ci nii wala ci naa xam nga. léegi nag pression bi waa Touba def ci Macky Sall mooy suñu màggal nga bëgg yàq parce que kii boo ko bàyyil màggal gi benn amul dara dara dugg Sénégal instant bi ville morte la. non du ñu économique kenn warul xaalis. Ousmane bàyyi nañ ko bàyyi ñu ko du ñu teg dañuy bloqué lépp ñun suñu yoon nekkul ci ay màggal. beneen affaire bi ma lay expliqué mooy ñoom ñoom dafa am pour que pour gars yi ñu comprendre bu baax marabu yi. du ñëpp nag grand instant bii ma lay wax Touba ci instant bii ma wax nii kër yëpp ñu ngi xaar ñaar. waaw da nga fa amul émissaire da nga fa amul émissaire boo xam ne da wax li fa nekk. Mhm. kër yi mu ngi xaaj ñaar famille li ñi ci kaw rek ñett ñi ci kaw ñoo nekk ŋànk Touba parce que Touba affaire kilifteef la mag mag mag mag mais kër yi seen biir grand Touba mu ngi xaaj ñaar ñett kër gu nekk xaajaloo na. Ah, dafa am dama gisal ku fa xam. xoolal ku fa xam dëggantaan bu dugg ci biir dëkk bi mu wax la li fa nekk dootuñu tuddante kër yi xaaj na ñaar. xoolal ma lii rek. ñi ci kaw xam nga lan la dañu jaloux ci Ousmane Ousmane ah li ko yàlla defal lañ mënul digérer loolu moo leen jàpp muy Bass Abdou Khader ak Mountakha Ousmane xalu kiñaan gi ñu am ci Ousmane moo leen yóbbee musib yi ñu nekkee Ousmane xal bu tàng jër la ci seen loxo instant bi ñoom dara jaruñu dara Touba jaruñu dara ci àdduna bi parce que ñëpp leen sippi ñëpp leen yàppi te loolu dara jaru ko. man tey am na benn booy bi mooy woo ci suba mu ne ma lu yéeme waa am cité kër góor gi Sénégal hmm. bañ tey Ousmane ba léegi ñu ngi bëgg mu taw mënul taw Dakar mënul taw. du taw de tey ci suba këram tey ci suba këram moo taw ak ñaari kër yu mu takkalool. kër Ousmane mën naa la yónnee image bi tey ci suba. yónnee ma moo taw ak ak ñaari kër yu mu takkalool. yónnee ma ko lu yéeme lu kenn lu kenn mënul imaginer lu lu kéemaane lu doy waar. looy wax ni yow këram képp moo taw. kër Ousmane. man ci suba lañ ma yónnee image bi dafa am benn boy yi def cak cak nii ay ten taw laa leen di jox mais ñoom dañ may yónnee lu xew foofu xam nga. kër moo taw ak ñaari kër yu mu takkalool. allahu akbar. xaar ma yónnee la ko ci whatsapp bi nga. xool yónnee ma léegi ma teg ko ci direct bi jàmbaar. waaw waaw ok léegi léegi. yónnee ko léegi ma teg ko ci direct bi kër Ousmane rek moo taw ak yenn benn kër bu ñu dendeel nañ dem rek léegi léegi. wéyalu. waaw waaw waaw xaaral ma woowaat la nga dugg ci ligne bi jàmbaar xaaral ma woowaat la ma may ma may ma may ma tuuti ma régler affaire bi quoi. dinaa la jël may ma rek waaw allo waaw jàmbaar allo waaw asalaamaaleykum waaw salaam grand dégg maa ngi dégg waaw waaw ñu ngi lay ziar waaw waaw noo ngi déglu noo ngi déglu hmm. eh, eh, li ma bëgg a wax rek mooy barki démb jàpp nañ lañu wax na ñett eh, vingt boy un hmm, booy hmm. léegi vingt et un yooyu nag ñu ngi leen di maltraité pour bëgg leen a forcé ñu wax ne ñoom ay nangam lañ ak nangam ak ay terroriste nangam booy lu jëpp ay waa Touba la ñu. booy yëpp waa Touba la Kaolack waaw am na ci waa Touba na ci waa waa Kaolack léegi nag ñoom nee nañ dañuy accusé booy yi waaw am na ci ñoo xam ne waa Touba la léegi nag dañ leen di accusé ne leen ay terroriste ngeen lañ leen bëgg accusé booy yi bañ am na ci koo xam ne barki démb woo nañ ko ba am na luñ ci def am na ci koo xam ne démb ci guddi woo nañ jabaram na ko kaay kaay jëndal ko ordonnance ah bon dañ ko torturé dañ ko torturé voilà dañ ko torturé waaw léegi nag dañoo bëgg nag loolu na ko ñëpp siiwal ba ñëpp xam ko dama la dama la fàtte envoyé message bi ci guddi pour wax la ko pour nga pour nga pour nga ko xam ñaar fukki xale ak benn la jàpp ci Touba ak Kaolack voilà léegi léegi nag benn booy bi nga xam ne lañ jàpp nañ ki nga xam ne lañ jàppoon mu tudd Cheikh suma juumul waaw nee nañ ay ay affaire yu mën a bënn pneu oto lañu yor lu mën a bënn pneu oto amu ci lenn lu nekk ak terroriste mhm. loolu police yëpp a ngi police boo dem am nañ ko pour amee ku ñuy wër ñu bënn pour oto mën ko jàpp. waaw yóbbu ko toppatoo léegi nag loolu lañ leen jàppee léegi nag lu xew Touba ak lu xew Njaareem lu xew Mbacke lu xew feneen fu jege ci yoon boobu ak yeneen dëkk fu ci xew ci ñaan affaire terroriste la Macky Sall moo ko def encore une fois. ah waaw bi may waxaat ne. deuxième bi ah, may wax du mu taxane na Moussa léegi. voilà léegi fàttali leen encore lu lu am solo lu am solo. Souleymane Deyna Ndiaye. waaw. deux mille vingt bi affaire bi xewee premier jour premier jour la woote Mack la woo Macky Sall na ko booy ba mu wuyu ko mu ne ko teggal sa tànk fi nga jëm baaxul. Mhm. li ma gis Sénégal mosuma ko fay gis. Mhm. léegi ñoom lu ñu wax ne lañu lañu àgg Ousmane Sonko képp ku dee Sénégal Ousmane Sonko la képp ku dee ki Sénégal Macky Sall ak Mamour Diallo ñoo nekk ay responsable bi ak euh, Bassirou géy ak euh, Moussa Fall Bokar Yàgg Seydou Bokar Yàgg Antoine Diom Marème Faysal Antoine Félix Diome waaw ak police ak ak ki nekk police centrale ak ak xaw ma naka yàlla xaw a Sankare ñoo ñoo nekk Sankare ak Bokar Yàgg waaw waaw commencement bi dëgg dëgg nag mooy ma Mamour Diallo la Macky Sall Marème Faysal suñu yoon néew ci moom ndax jabar rek la kooku lijjanti wuñ ko ñun ki ñu lijjanti maanaam mooy Macky Sall yeneen bandi yi ci des nag dinañ leen lijjanti dinañ wax ak ñoom loolu comprendre baax a baax a baax na ko Sénégal xam xam ne ñun duñ jëm ragaluñ ko tiituñu ko te danañ jàkkaarloo ak Macky Sall ba tëj ba ba xam ne lépp dëggal te ragaluñ ko te duñ ko muus rayobu ji en tout cas li ma Sénégal yi a am fulla ah li ma am pour wax leen magal bii ñoom ñi ngi nas seen terrorisme Antoine Diome mi ngi nas beneen pol beneen attentat la bëgg a def euh, Touba Antoine Diome mii waaw loolu Cheikh Tidiane Gadio moo ko waxoon Cheikh Tidiane Gadio wax na ko wax na ko deux mille dix neuf la ko wax Cheikh Tidiane Gadio. Mhm. moo waxoon loolu ci làmmiñam. waaw ne Touba am na ko bëgg a def nangam ma nangu jiwaay ji kon nañ ko bàyyi seen xel ñoom ko waxoon ko plan ñoo ko teg. a xew ba xew lépp lu xew Sénégal Macky Sall moom mooy bi part de responsabilité quatre vingt dix neuf pour cent yoonu kenn nekku ci kudul moom. dénkuñu kenn réew mi kudul moom moom moom la moom la ko tubaab bi dénk ci ay ci ay ak seen i seen. na Sénégalais yi comprendre ba pare ma bëgg Sénégalais yi nag Ousmane Sonko dafa am benn wax bu wax bu am solo ñun Ousmane Sonko comme yaan ay léegi la nga dégg yi di ci ne Ousmane Sonko la Ousmane Sonko la ñun nañ jéem a xam suñu l'essentiel mooy lenn ñu ngi téye suñuy leader ñu ngi téye suñuy boy ñu ngi téye suñuy xarit dañuy xeex ba keroog ñuy génn te duñ mën a arrière ko ñoom ñu xam ko mm-hmm. affaire bi loolu la amul leneen mm-hmm. léegi xeex rek la amut lii amut la amut leneen amul négocier ak ma Samba amul négocier ak ma Demba buñ ci xaritoo kenn ku bokk waa APR jarul nañu jarul nañu ñaawoon ñoom di xuloo yooyu jaru ko mais seq ak ñoom yenn waxtaan yi ne ko na ko ñëpp dagg na ñëpp dagg seen waxtaan ak waa APR yi dagg yenn wax yi nga xam ne ñu seq lu jëm ci cadre boobu lu jëm ci cadre nit ak nit nag mën nañ ko seq mu lu jëm ci cadre politique ku la ci wax ci benn baat nañ ko dagg teg ko fële diggi tapaat na nga wax booy yëpp képp ku bokk passé kuñ xamoon mu àndoon ak Khalifa Sall ak Barthélémy Dias nañ ñoom ñoo leen di boole ñu leen di jàpp Barthélémy waaw ñu àndoon ak Barthélémy Dias ñu àndoon a Malick Gakou ñu àndoon ak euh, Idrissa Seck ñu àndoon a euh, ñeneen ñooñu nga xam ne bokkuñu ak Pastef waa Pastef jamono ji dañu xam ne xeex bi du xeexu kenn kudul ñoom seen xeex seulement li ma doon waxoon deux ans passé laa leen xeex bi kenn du ko gañe kudul ku gëm Pastef ak koo xamante ni da nga bëgg sa réew tamit dëgg ca nga xam ne yow faroo fenn kudul ci bëgg sa réew ngay xeex léegi faw Sénégalais yi ba a déglu télé yi bañ a déglu rajo yi te xeex jël décision gañ a xeex te amul leneen li mooy coow li mhm. te maytu képp ku bokkoon maanaam benn bokk yaakaar naan la Macky Sall day font naa ma sàng daam lu mu bëgg xam ci yow loolu na nga ko bàyyi a baax ku naan la man Macky Sall parol naa ko waaye na ko gars yi maytu baax a baax ku bokk ci Khalifa Sall nag nañ ko maytu booy Barthélémy Dias baaxul waxoon naa ko bu yàgg neneen Barthélémy Dias doomu Jean Paul Dias la dégg nga Jean Paul Dias dégg ngeen di wax ànd ma ci naa nga ma sàng waxul na ci moo koy conseil keroog bi bi am bis ba Barthélémy Dias di génn këram muy tàppante moo la la la leen bil bii bu sottee du ñu neex ñun te boobu gars yi comprendre na gars yi comprendre na xeex bi suñu xeex la kenn duñu ko xeexal nous sommes des patriotes nous sommes des sénégalais nous sommes des fiers pour nekk sénégalais quatre vingt dix neuf pour cent du tere nag réew mu ñu mën a nekk dinañ ko respecté jox leen seen gëdd bëgg leen jox leen yoon mais na gars yi comprendre na jamono ji àdduna bi ñoo complot ak Sénégal pour xeex Sonko àdduna bi laa wax nag mboolem dëkk tubaab bi ñoo ñaam xaalis dañoo contre Ousmane Sonko di ko xeex du Sénégal na ko kenn ah hmm. moo gën a ndaw dama dama koy wax waa ngeen di xeexal àdduna ngeen di xeexal parce que bu Sonko réussiré Afrique jug tubaab bi daanu parce que tubaab bi lépp luy yaakaar Afrique lay jugee boobaa ñun dañu réussir Poutine mi nga jàpp mi jàpp ne day xeexal africain xeexal du leen de Poutine dafa bëgg maanaam marchandisam jaay mu téye économie benn côté bi nga xam moo ko a téye ak su téye seen waaye yombul mais xel moo koy def mu ànd ak fit nag ak jom fit ak jom mooy xeex ma bàyyi ñeneen ñi bëgg a dugg ñu dugg ñu lay sant bu baax nag grand ñu ngi gis da ngay sonn ci kaw man mi la xam xam naa yaa ngi sonn ci suuf ak leneen ak leneen leneen yaa ngi ci sonn na la woo toppatoo amatoo benn jot budul Sénégal changé ak jëm ci kanam yàlla na la yàlla gën a jàppale sa aar la lii yaakaar di ko yootu nii ñu ko xeex yàlla bu say yaakaar tax yàlla la ci yàlla wallu ci ta ñaari waajur ak barke képp ku ci ne di xeex ci barke seen ñaari waajur yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def dafa ñu ci ndam képp koo xam ne dafa def pexem bon yàlla na ko yàlla këpp ci kawam te jox ñu ndam te boole ñu ak waa ahlu badar mi nga xam ne képp koo xamante ni mooy moom loon jàppal xeex am ci lu kawe am nii la c'est-à-dire jàpp nañu ñaar fukki xale ak benn Touba am ci ñooñu am na ñu dëkk Kaolack ñu accusé leen terrorisme mooy li ma leen wax rek li ma leen wax rek mu ngi noonu donc fii amul lan loo xam ne fii loolu la ñu war a xalaat lu dul taxaw jaamarloo ak ñoom ñun si li gis ngeen li bëgg sénégalais nga xam gis nga priorité priorité dafa am solo ci dundin doomu aadama mais dafa am solo ci sa diine diine dafa am ay priorité ci diine noonu la amee priorité ci sa dund ci sa life way yellow yónnee naa la ko yónnee naa la ko. ok maa ngi koy xool. mais mais xoolal grand est ce que xam nga benn affaire boo xamante ne nii gis nga tubaab bi xam nga ñoom ñoo ñoom quatre vingt dix pour cent ñoom ñoo ñoom ñoo jàppale Ousmane quoi parce que dañu tiit. mais ñoom la dañu jaaxle parce que boobaak léegi un an deux ans ñu ngi koy téye di yónni waa ali Élysée yi ci ci ci ñoom pour ñu signer pour mu nangu accords yi douze accords yi suñu maam yi jaam yi signé woon foofu Ousmane ne du ko signé du ko nangu ñu ñu. amuñu pexe parce que Niger yëngu na ñu ne en attendant nañ ko téye bloqué ko. Mhm. nañ ko téye bloqué ko xool parce que il paraît que Assimi Goïta ci boppam. ak booy booy Ibrahima Traoré booy yooyu yëpp ay booy Ousmane lañ ñoom dañuy yàgg fan Ousmane. Mhm. parce que xam nañ ne tôt ou tard ñii ak Ousmane benn la doon parce que ñoom Ousmane moo leen Ousmane moo leen moo leen moom moo leen di moo leen Ousmane dañu fan Ousmane quoi. moo di inspiré quoi Macky moom problème moom mooy bu mu am mooy xamul nu muy def Ousmane jàpp na ko mënu ko jàpp dina ko bàyyi par force xamul nu muy def te tubaab bi barki alxuraanu karim grand maa la ko wax fii gis na nang bu nanguwul dem Niger takk ci rib ba bakkanam ñàkk ci tubaab bi dañuy ñëw dañuy ñëw wa accordel li mu bëgg ba pare Ousmane mooy dem régler ci problème boobu. mais Niger Niger moom ñoom nañu jël avion rek ci dara ñoom. ñoom ñëpp nii. yàlla na seen al militaire yi jël yàlla na seen avion bi explosé ci kaw. mais xoolal yónnee naa la photo bi ma lay wax nii. d'accord bu baax bu baax. ok géopolitique bi dafa gën a xóot am na loo xam ne mënu ma la wax ci kaw mais après dinañ ci waxtaan ci suuf quoi. d'accord d'accord priorité dafa am ci dundin doomu aadama même ci diine ci diine yàlla dafa teg ay priorité ci diine yonent bi teg ay priorité ma ne priorité dafa am suñu xeex bi suñu bi. suñu priorité mooy avenir Sénégal ak suñu avenir yéen jeunes yi yéen jeunes yi nga war a dem xëy daani doole pour am dara nga bàyyi ko ne damay dem màggali après nga dem magal wala gàmmo nga dellu suñu taxaw di yelwaan di yelwaan waaw loolu moo fi nag réew mi réew mi moo nekk ci jiiki jaaxal dañu war a taxaw pour ñu génne réew mi ci guuta suñu alal bii mi yàlla jox ñu bu ñu nangu mukk tubaab bi jël ko nee naa leen toujours ñaari camp ñooy xeex ñi bëgg alal bi des Sénégal mu njëriñ Sénégalais yi ak ñi nga xam ne ñoom dañu bëgg alal bi tubaab bi di jël ko te tubaab bi ñu ngi tégal ndem ci yenn eh, nigeria xam nga Niger woy allo oui allo waaw jamba loolu moom da nga am problème connexion quoi allo allo allo Baba. waaw. allo waaw. waaw maa lay jaajëfal di la siyaare. waaw noonu dafa am problème de. waaw waaw yow da nga am problème connexion. nekk côté waaw leerul de. waaw demal. waaw mais man man comme kii bi leerul ni dama damay waxaale rek maanaam na gars yi sóoraale euh, mooy ñiy def saaru récupération kii. sans récupération politique quoi ndax bu ngeen euh, seetloo temps yi da ngeen di gis euh, ku mel ni Bougane di mm. indi yenn façon kàddu yoo xam ne day mel ni moom actuellement moom euh, benn sans récupération daal laa jàngal ci ay mbiram te nag xam ne ñun dépassé nañ ay mbiram ndax moom amul capacité am taxawaay bu président Sonko am ndax président Sonko dafa am capacité am xam-xam am éloquence am lu xamante ni recherche xam ne dafa manqué ci homme politique Sénégal yi ba pare diñ gëm boppam loolu na xam na nga xam ne ñoom nekkul ci ñoom mhm. kon récupération boobu nañ ko arrêté ñu xam ne ñu ànd ak président Sonko nekkuñu n'importe qui ay nit ñu am xam-xam lañ nit ñu am ràññee nit ñu xam ne dañoo jàng mhm. xam lu bëri waaw ku mel ni président Sonko rek moo leen attan nañ ko xam te ñu arrêté seen manipulation yooyu te ñu arrêté seen récupération yooyu xam ne loolu du fi jàll buñ jàppee nag patriote dañoo découragé ba tax ñuy profitoo ñu ngi nax seen bopp ñun tey lañ gën a taxaw tey lañ gën a ànd ci combat bi tey lañ gën a gëm li nekk nañ ko xam amul dara lu xamante ni mais Ousmane Sonko ci lu xam ne benn taxawaay buñ amoon la mais Ousmane Sonko candidat la waaw amul lenn lu ñu ci lam-lame lu ñuy lu ñoom bu ñu yaakaar la ñoom bu ñu yaakaar ni bugaan bu yaakaar ni dina mën a récupérer électorat pastef bi pour moom day nax boppam fii kenn mënu fi jël électorat pastef parce que ñoom ñëpp kenn gëmu leen ñoom ñëpp si sek na mais yow saay ñoom ñoom ñëpp lenn la ñoom Macky Sall la ñuy liggéeyal mais en fait dañuy mel ku tax nii ñoom ñëpp ay traître lañ discours yoo xam ne pour mais dama bëgg sa classe ji di ci yee parce que yow li ngay def dafa am solo moo tax mooy bëgg yooyu yëpp dee ko si dugal nga yaale askan ñu comprendre parce que ñaar ñoom moom comprendre nañ leen muy Khalifa Sall ak Karim Wade moom ñooñu moom xam nañ ni si léegi nag léegi tey dégg nga ko rek muy xëy ci journal bi moom buggaan naan non ay ñee bëgguñ ñii mais moom ni ni ni ñu boolee Khalifa Sall ak Karim Wade si mbalit ma noonu lañ ko defaalee si mbalit ma naa xam ne mënuñu récupérer na arrêté te mu dem wuti leneen lu mu ami te mu xam ne ñun nekkuñu ku ñuy nax amul dara lu changé nañ ci combat bi ba ñuy profité nañ naa la parce que comme connexion bi neex. waaw naa la bàyyi ñu gën a suivre affaire bi. donc fii politicien bu yaakaar ne yow mun nga ñëw récupérer électorat Ousmane sonk wala Pastef da ngay di nax sa bopp parce que ñun ku yaakaar ni yaa ñi gën a yeewu nax ngeen seen bopp parce que ñun topp ñu nit ci ay yaama neexal ñun critère critère jaar jaar nit ki. c'est-à-dire que nous politicien politiciens politiciens, day day sos day du du sam du gor ko Sénégal depuis 1960 politiciens yoy ñoo depuis 1960 politiciens yoy ñoo fi ne loolu fay joggé fi il faut ngeen ne rupture bobu mo am nekkuñu fi pour ay yi di gis tous ces accidents de l'histoire politique là.

Mm-hmm. et boo leen mun boo leen munee gën a wax ci affaire mooy électeurs yi. Mm-hmm. parce que gars yi côté boobu lañ bëgg a bëgg a féetale affaire yi quoi pour jëm a capter électeur Pastef mais loolu loolu duñ ko mën. Mm-hmm. loolu loolu dañuy jéem a sonal seen bopp mais duñ ko mën. moo tax mais euh, boo leen ci gënee boo boo boo leen mën euh, bu ci gën a soññ gars yi. incha allah ci kattan yàlla moom président Ousmane Sonko moom candidat la te day day dem moom. na gaay na gaay gën a taxaw gën a farlu ñu gën a taxaw xeex waaw. ok incha allah lépp day kii mais benn côté ci côté Barthélemy moom man man dama lay wax benn affaire Barthélemy moom dafa jeexal dafa jeexal moom. non ñoom ñëpp jeexal ñoom. Khalifa Sall ak ñoom tout ça. waaw dama leen di ñaan. te est ce que xam nga Barthélemy gars yi gars yi léegi ñu jëlee léegi ñu jëlee ko fi gars yi dañ koy dañ koy joué ku ku bu salte Barthélemy fu mu nekk nii tey tey bu ñu ko bëggee bu ñu ko bëggee bu ñu ko bëggee dégager ci miir bi day day day kii parce que amatul kenn ku koy jàppale il est vide dafa vide. ok fu mu nekk dafa vide. Mm. Mm. Ousmane Sonko moo nekkoon kii mais léegi moom dafa vide donc ay Khalifa Sall ay kii yooyu yëpp dañuy dañuy tardel mm, buñ ñu tardel quoi nañ nañ continuer suñu suñu focus. ñu xeex suñu combat yi te incha allah dañuy am ndam. incha allah waaw man man loolu am pour que ma bàyyi ñeneen ñi kii quoi. ok d' accord alors donc xaaral ma xool vidéo bi nga xam ne moom la ma kii yónnee euh, pardon vidéo bi ñu ma yónnee nii ma ñu xool ko ñu xool vidéo bi quoi mhm. parce que euh, waaw mu ngi nii quoi. ah oui. ah waaw moom la moom la de moom la ñu wax de mi ngi nii de mi ngi foofu rek moo tawa ah. mi ngi nii de këram rek ci këram bi fii xoolal ci suuf si bokkul ak fële këram ak fële rek moo taw xoolal rek këram foofu rek moo taw quoi hmm? mi ngi nii foofu rek moo taw këram maanaam daal kër Ousmane quoi ak benn keur bi mu dendel rek jeex ci cité góor gi yëpp quoi maanaam ci ndakaaru yëpp quoi foofu rek mo taw quoi hmm? ah nañ dem rek acca bismillah donc li ñu bëgg gëmlo gëmloo Sénégal yi da ngeen koy dëgg journaux yi surtout lops diko wax may wax patriote seen ngeen bay ci xel ay way euh, euh, euh, Ousmane il n'est pas éligible Ousmane dañ koy génne ci liste électorale bi Ousmane dootul bokk du candidat yooyu yëpp na la day fen man man man man man nit dem na xool gis yëpp jënd ñoo ne ma dañuy fen waxuñu dëgg man li ma la tuur Ousmane mu ngi ci liste bi mu ngi ci biir fichier bi kon ñoom buñ leen gëmuloo buñ leen gëmuloo dara loo xam ne lu ay tas nañu parti bi fii ay dugg na fi jënd na fi même bu ñu tasoon parti bi Ousmane coalition moo koy porter candidat la na patriotisme pour pare Sénégal yëpp pare leen 2024 incha allah Sénégal dafa war a soppeeku benn deuxièmement Macky Sall en question pare pour def élection daf fi bëgg a jalgati pour pousser pour toog fi Macky Sall du fi toog ba 2035, fii élection yi da koy organiser su parewul moo xam mais la mu bëgg a def du jàll loolu sénégalais buñ ko nangu la ñëpp taxaw parce que amul benn président bu fi toog bon astafurlah moom du suma président quoi waaw parce que man musuma ko wax président parce que musuma ko reconnaître amul benn ngir président bu taxaw fi sa mandat yi jeex nga ne la ngay prolonger toog di fa amu fi Macky Sall moomul Sénégal bàyyam moomul Sénégal ndeyam moomul Sénégal moom ak ñoom Marème Faye Sall loolu moom il faut que ñu ko faut ñu jóg taxaw jàkkaarloog moom du fi am prolongation du fi am dara. fii suñu buggee ma léegi dëkk bi mu nekk ci kaw dañuy dugal dëkk bi ci kaw te moom du fi toog léegi bu amee ay góor yàlla ñu nekk ci armée ñi nga xam ne jël nañ seen responsabilité ñoo ñu ne ñu jël seen responsabilité wax ma xusma ñàpp yi de ñi nga xam ne ay beccoo la ñuy takk ak jaljale ak sëriñ non góor yi laay wax góor yàlla yi parce que du ñëpp ci armée bi ponkal yi waaw dañ ko jël ñu jël pouvoir bi Macky Sall dégagé du fi toog Senghor munu ko am Abdou Diouf amu ko Abdoulaye amu ko Macky Sall moo am du Macky Sall moo koy am waaw du Macky Sall moo koy am ay ñoom général Moussa Fall ak général Mbaye Cissé ak ñooñu mu teg fii ak yooyu tout ça ñëpp di solo ay beccoo ak ay siriñ ay silip jigéen la ñooñu seen affaire la yéen góor ñi nekk ci armée am ay góor nag ay nopp takk leen seen tubéy ngeen jóg taxaw ñun ñëpp ñu jóg taxaw Macky du fi prolonger dara tous loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg waaw yeboo moom moo xam na dem complot ak sëriñ si affaire la moom ak seen ay sëriñ quoi ñun si ñoon ko may wax na sénégalais am leen fulla am surtout jeunesse bi yéen am leen fulla am leen fayda fii ku fi nekk boo dee ak sa bàmmeel fii ku ci nekk boo fi dee yow ak sa bàmmeel kenn du la yóbbu kenn du la gunjee bu leen pétrole seen temps jaamu leen yàlla ngeen bàyyi ñii ngeen di topp naan leen fii ay kilifa kërën kërën di fekk ñoom ñëpp kenn jubu ci kenn jubu ci kenn ah oui nga dëgg de champion waaw bi jaar naa la soxla maa ngi nii sinon naka coono yi masa coono masa coono gaen ñu lay ziar parce que coono ci liggéey bi gis nañu affaire yi yaa ngi ci jàpp bañ a bàyyi mm-hmm. waaw jàpp bañ a bàyyi la de affaire bi non euh, il faut que ñu bataille psychologique la rek dañuy saale nii quoi dañuy jéem a def mel ni affaire bi xam nga jeex na mais mais xeex bi xeex bi tey la war a tey la war a gën a tàng de gaay nañu dañu xam loolu de non xeex bi fii mu toll ñu bàyyi fi dara parce que parce que Macky Sall dernier ay dernier balam la yor mm-hmm. comprendre nga te ñun te ñun li ñu dese dafa bari xam nga li ma la bëgg a wax. ñun mhm. ñun ñun ñun li ñu dese ci ay bal dafa bari mais Macky Sall moom mu ngi ci ay dernier balam ñëpp xam nañ lool xam nga. Mhm. moo tax c'est-à-dire que du du moment ko délaissé quoi xam nga xam nga mhm. dabaax dafa am benn affaire bu ma bëgg. dugg ceeg yow te affaire boobu yow sax yaa tax ma ciy dugg xam nga bi ñuy war a bàyyi ay da nga ma woo téléphone. Mhm. deux avant boobu kenn xamul sax ni war nañ koo bàyyi. yow yaa ma woo téléphone gën ma dañ koy bàyyi jour tel. waaw. gën ma waaye war nañu def sarax tel tel tel parce que buñ hmm. koy bàyyi day set dañoo jàpp ni jekku nañ ko ba pare. waaw. waaw mais yow loolu noonu. loolu noonu dañ ci dañ ci ñëwaat te dama ci am ay confirmation yu leer léegi. Mhm. waaw xam nga gis nga gis nga gars bi ñuy bàyyi Sonko. waaw. mystiquement moo tax ñu bàyyi ko. Mhm. parce bi ñu jàpp comme li ma waxoon dafa am lu ñu doon def ba jàpp ni li ñu doon def jàpp na ko pare ñu doo ko bàyyi pour ñu waaw. waaw te loolu jabar ji moo ci nekk. Marème Faye Sall moo géré loolu lu jëm ci moom moo ci tax ba jeex. Mhm. bi ñu koy bàyyi. dañoo jàppoon ne liggéey bi jàpp na maanaam Sonko buñ koy bàyyi dootul tal sax di wax lu jëm ci politique parce que dañ ko bëggoon a xabtal. waaw. bi ñuy gisee ni sawaay xabtal bi jàppul ci la ñuy profité ne tak tak ñu jàpp ko téye ko. Mhm. parce que boobu mystiquement maara bi am na lu leen wax te gis nga sëriñ sëñ sëñ Baara Ndiaye. waaw Baara waaw. Karim Kouroum Fall. Cheikh Omar Diagne. Mm-hmm. ñooñu Marème Faye Sall moo leen di téyel boppam. Mm-hmm. te Marème Faye Sall cest dire que gis nga ci Afrique de l'Ouest LGBT bi gën a mag ci mm-hmm. àdduna bi. ñoom ñoo koy financé. ñooñu affaire politique taxul ñu jàpp leen de gis ma lay wax nii li tax ñu jàpp leen. cest à bu Marème Faye Sall ñoom ñoo nekk ci ginnaaw maanaam dafa am xeet rëy bu ñu nekk boo xam ni gars yi xaw ñu xam ko parce que ñaari lobby la moom jëkkër ji franc-maçon la jabar ji lesbienne la loolu moom ñëpp xam nañ ko te dina gën a leer ci kanam. waaw li ma lay wax nii gis nga moom bu ko déggee dina xam ni gaa yi xam nañ ni mu demee parce que lobby la ñu am quoi moom jabaru Antoine beeg yooyu gang la ñu am te dañ leen jàppaloo ñooñu moo tax gis nga gis nga gis nga. Cheikh Bara Ndiaye waaye mbokkam bu ñu jógul gars yi dañ koy sànq de. mais Cheikh Bara est-ce que foofu laay ñëwee moom tey moom tey am na mbakk mbakk bu ma woo ne ma wax ci Cheikh Bara. waaw mais li ma lay wax. ab xaw ma naka naka sëriñ xaw ma naka sama ki dem na ñi bañ ko ñi bañ mu gis ah, ko. sëñ Sabat Mbacke moom yóbbu mel ni nga doon waxtaan ko loolu dama la koy confirmer moom la ñu yabaloon pour mu dem waxtaan Ousmane Sonko pour sawaay baay. moo tax moo tax Ousmane Sonko faj faj na ko faj yi métti moom la ñu wane woon bu nekk màkk ànd ak seen waa moom la ñu yabaloon pour mu dox loolu. moo tax it Ousmane Sonko faj na ko faj yi métti. waaw mais gisoo ñoom pour ñu génn ci loolu. dañ doon saale naan sëñ bi Cheikh Baara la ñëw di seet ñu ne ko Cheikh Baara nekk ko mais Ousmane la ñëwoon di seet. Mhm. mais dañ doon jéem a réeralu waaw pour wax la ni gars yi dañoo am lobby bu mag gis nga ay ñoom Aziz Ndiaye ay F24 ah même gis nga Pape Malick Ndour bi ngay gis noonu dañ dafa créé gis nga moom xam nga moom moom Papa Sow mooy mooy mooy garde corps am moo yor moo yor institut bi koy garde moom mm, mm. mooy Pape Malick Ndour Papa Sow dañoo créé gis nga ko fanyee mu génn déclaré ne moom nekkatul mbër bàyyi na lam mm-hmm. ci mbër boo xam ne yaa ngi sa digg carrière xam nga kon kooku am na koo yaakaar waaw ñu créé jàmbaar production di tëgg ay lamb lamb yi ngay gis fan yëpp ñoom ñoo koy tëgg. Mhm. parce que boobu la lobby Marème Faye Sall bi ne ñoom ñoo téye yooyu loolu yëpp liñ ci jublu mooy pour jéem a déconcentré jeunesse yi lu jëm ci xeex. Mhm. ay milliards lañ jot tax keroog ma ne la gars yi nañu taxaw ci xeex bi ñu mën leen contrecarrer parce que xeex bi moyen la laaj. Mhm. te ñun pour ñu gañe soxlawuñ sax lu bari bari mais foo ñu dooleel leen yéen yow xam nga yow xam nga xeex bi lan la laaj. Mhm. gis nga booy yi commencé nañ leen dugal ci dama la ne li booy yi li ñu yor ci xaalis di ko tax ci booy pour jéem a détourner seen moyen seen objectif du jeex mais ñun waruñu nangu loolu xeex bi dañ ko war a gañ te ñu koy gañee ay tactique la bi gis nga tey ministre de la communication gis nga ko. waa ji génn na def benn déclaration ni gars yi dañu attaqué benn bloc électrique bu bu bu Sonatel gis nga ko ah gis nga communiqué bi mu def. waaw. yooyoo am effet. c'est-à-dire que xeex bi ñun foog ñu am luñ koy xeexee am ay champion yu nekk ci terrain bi ñu jox leen moyens yu ko jar affaire yoo xam ne mën nañ toog une semaine togg ko ba mu ñor buñ ko dóoree mu def effet. pourtant gars yi loolu mooy tax ñu mën a dellu ginnaaw. nga stratégie bi. léegi kenn du ko waxtaanee ci ay panel kenn du ko waxtaanee ci ay laafi en direct yooyu yëpp amatul léegi ah, y en a pas waaw donc euh, problème bi mooy euh, hmm. boo gisee ma jox la benn exemple ndaw moo ta gis nga waaw euh, xeex bi amul Sénégal mais crise bi dafa laal Guinée Bissau parce que camions yi camions yi jógee Guinée Bissau di jëli marchandise di ko dugal Guinée Bissau di jóge gam ñëpp ñëpp dañ leen bloqué ba léegi camion mënul dugg transport en commun mënul dugg même Gambie Gambie ñëpp lépp la ñuy tëj effectivement effectivement li ngay wax noonu dëgg xeex bi ñu war a xeex xam nga Dakar Dakar waaw mhm. Mm-hmm. lepp li nga xam support de communication la état di ko jëfandoo muy moo xam ci internet bi le câble internet bi mo xam di day jëli loolu la ñu war a paralyser couper communication bi complètement door mu taw loolu mooy liggéey bi parce que gis nga réseau yi gis nga réseau communication bi banque yi looloo ko yor internet bi internet buñ ko paralyser rek jeex internet bi moo yor lépp même terre bi gis nga terre bi ngay gis nii dafa am benn réseau communication bu doy waar boo xam ni moo koy doxal te lépp ci loolu la basé gis nga buñ ko non mooy comme li nga wax rek bugguma sax ñu sori ci di ci wax ni. non buñ ci sori ci moom xam nga. waaw buñ ci sori mais mais faw ñu xeex. parce que ñoom lu bi la ñu yor boo xamante ni kaay ma wax la benn il faut tout faire pour endormir le corps dañuy def lépp pour nelawal gars yi pour ñu mën a nelaw gis nga combat yi ngay gis yi ngay gis yëpp. xaalis boobu la Marème Faye moom dañ ko jox xaalis bu bari muy def yi muy def mais moom la ñuy njëkk téegal ndeyam moom ñu ngi koy yootal li ñuy def moom munul tere ba ko def nañ ko togg ba mu ñor ñu def ko <laughs> waaw te Macky Sall ku yaakaar ni sawaay dafay def élection wala am na candidat yaa ngi nax sa bopp moom moom loolu moom yow xam nga ni mu demee waaw yow yow xam nga ni mu demee moom Sonko moo doon problème am gis nga affaire moom moom dañ ko gëmloo woon ni Sonko bés boo ko bu ñu paree ci li ñuy def bés boo ko bàyyee loolu boppam lay tal. waaw bu ko defee nga door a mën a ñëwaat wax waxu sa candidature est-ce que comprendre nga li ma la bëgg a wax. waaw exact bu dëkk bi instable nga continuer gérer noonu mais gis na ni jàppul te yow xam nga li tax jàppul. Mm-hmm. comprend nga li ñu bëggoon def Sonko jàppoon nañ ni ñu paree ci moom day jàpp mais non mënuñu ko téye mystique mystiquement moom ñoom mënuñu ko téye xam ko mënuñu ko téye même li muy def xamna ko bu baax bu bari bu ñu ni sa way lonkoñ la sa way tay la gëna am doole tay la xelam gëna maj parce que gis nga ci ñu yónni bi ko démé hmm. moom dafa japp ni sa way àndatul ak xelam mais sa way lim ko wax xamna ni ki nit ku and ak xelam la baña non seulement daf ko wax dëgg be paré daf ko né ligne bi fi ligne bi kenn du ko duma may kenn ku ko jéggi fi fi freiné fii. waaw. li ligne rouge. waaw. loolu la quoi. la mais mais mais Karim Karim Xrum Xax Cheikh Omar Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye na ci yi jàpp bu baax. nañ leen non non mais jàmbaar jàppale ñu jàppale leen. jàmbaar surtout famille. non dama ne ñu nga ay famille. dama ne ñoom ñëpp ñi nekk ci prison bi lañu war a jàppale ñëpp dañu war a libérer dañu war a jënd. saway non kii il faut ñu jàppale leen xeex bi xeex bi. cest à léegi dañ gars yi dañuy dem ba ñu am beneen maturité ci xeex bi ñu am benn xeex bi dañ koy togg ba mu ñor xom xom xom. nga xam ne bu ñuy téegalee ndeyam dina xam ne yàlla julli ak nodd la santaane. barke salaatul fa waaw même bu ñuy une semaine boo xam ne day jàpp ni calme la bu ñuy dóoree dara rek xam nga ni nangu boobaa. pour toogee mu am calme sax dina ni ñii calme nii am na lu ñuy préparé c'est-à-dire que il faut que ñu installé benn peur seen côté boo xam ne muy mën a tax ñu teggi seen tànk mais fépp match il se sent pas menacé day continuer déroulé. dañ dem rek ñun ñoo ko mën a def. waaw moo tax comme noonu rek yow nañ ci jokkoo ñu waxtaan ci bu baax a baax a am na ci yu ma nekk nag quoi. yow boo ma woowee après dinañ ci jokkoo. d'accord Mhm. waaw mais mais nag côté bi ma bëgg intervenir mooy gis nga dama lay bëgg xam nga bu yàgg ba gis nga Sonko dafa organiser woon Pastef ba nga xamante ni dañoo amoon ay fonds de roulement yoo xam ne dañuy jàppale prisonniers yi ñuy gaañu ñu leen di jàppale. comprendre mhm. ngeen lu boobu. Mhm. dama ci bëgg a sensibiliser ñëpp ñëpp gars yi nañuy jàpp. cagnotte, du woon nga paypal kañor bi gis nga kañor bi dafa bokk sax ci yu parce que actuellement nii ñoom ñi nekk foofu mënatuñu loolu mhm. champion bi diaspora bi ñun ñoo kon ñi di ci bi quoi mais bien sûr mais ñooñu am famille dañu am ay mhm. doom état dafa am gis nga ñun ñi ñun nañ ci lever fond bu ñu neex parce que kenn mënuñu prélever fonds te am na fuñ ko mën a jaarale ba ñooñu seen ay famille jox ko parce que tey xeex bi tamit ñu nekk di xeex ci terrain bi ñun ñu nekk fii ci kaaw bi ñun ñoom foo ñëwal leen ñi aussi am na ñu nekk seen ginnaaw pour jàppal leen en cas de besoin parce que tey ci am famille yi daw dépense yi dem di ñëw tey boo ko nee xeexal te tey ba su duggee ci biir amul kenn kuy soutenir famille ku koy jàppale mais kooku du jël risque di xeex parce que loolu yëpp dafa bokk ci plan xeex bi tey ñooñu ci ginnaaw ba ñu xamee ni am na ñu nekk seen ginnaaw am fond bu taxaw boo xam ne kuñ ci jàpp say famille lañ lay jàppale kuñ ci ku ci feebar ñu faj la mais loolu day dooleel xeex bi. ooy PayPal bi mu ngi noonu ci kaw. wax nga dëgg PayPal baa ngi noonu mais xam nga tey buñ ñëwee dañu ne dañu dugal xaalis dugal xaalis te xaalis bi tamit mooy li ma la wax gars yi dugal waxoon naa la def leen téléphone bu taxaw gars yi def ko en direct muy feeñ ñëpp gis ko jar na ngeen jël benn chaîne boo xamante ni chaîne panafricain lay nekk bari na africain yow gis nga chaîne ñu am fu mu nekk jar na tase lépp benn fois wax jour bi kañ la gars yi lépp fa xaalis bu taxaw mais gars yi nekk ci jeel bi ay ñoom Karim ñoom Cheikh Omar ay ñoom Cheikh Baara Cheikh Baara dama la ne li mu doon def te kaay naa la président benn affaire gis nga Cheikh Baara li mu doon def ci ay sarax ñaan yi mu doon génne di contrecarré gars yi doon def xanaa xamoo loolu bokkoon ci li gën a tax bëgguñu ko bàyyi Cheikh Baara da doon def liggéey bu doy waar ci biir Pastef sawaay da daan wàcce kaan yi di génn ay sarax yoo xam ne xaaru ci doomu aadama sawaay li mu daan yor yëpp da koy def ci xeex bi gis nga Cheikh Bara looloo tax gaa yi téye que dafa am doole ci bi boo xamante ni pourquoi ñeneen ñu bàyyi leen tey tey Cheikh Bara situation bi mu toll nii Pape woon foofu ñu bàyyi ko mais kii bëgguñu ko bàyyi parce que xam nañ rôle bi ci xeex bi mais ñoom tey buñ demee ba lompoñ seen ay famille seen ay njaboot mais foog ñu am ñu leen soutenir te loolu ñun ñoo ko mën actuellement mais Sénégal fan nga mën a yi xam nga soow Pastef li mu doon def levée de fonds yi mu doon def mu koy def fu mu toll nii bracelet yeeg jaay yee yooyu mais léegi ñun ñoo war a jël relève boobu fii kaaw bi du ay woote woote woote ni kese nag gars yi def ay structure yu taxaw def ay levée de fonds yu leer yi ne xaalis bi fii la jëm fii la jëm fii la jëm xam nga xeex bi daw bu ko defee ëllëg booyi tey koo ci xeexloo day xam ni kat man nii ëllëg lu ma ci dal am na ñu nekk sama ginnaaw pour jàppale ma exactement ma bëgg a wax. Mm-hmm. parce que nekkul ni nekkul ni booy yi nga xamante ni amuñu njaboot amuñu famille booy ñoom rek ñooy xeex mais am na ci ñoo xam ne dañuy xëy di liggéey am jabar am doom am ay wayjur yu baajew ci ñoom xeex bi dafa laaj moyen est-ce que comprendre may waxee. te loolu gars yi foofu ñu taxaw foofu ñu taxaw ci champion. ok foofu gars yi booloo waxtaan defar loolu. parce que gars yi bés bu ñu amee ni gars yi am nañu xaalis bu ñu xeexee non di nga gis ñu dellu ginnaaw ci lu bari parce que tey. corruption bi li tax mu mën a jàll Sénégal mais xiif bi moo tax tey xoolal booy bëri yi ngay gis ñi yenn ñi mais boo gisee tey yi ñuy def nii ñu leen di bëriloo koy parce que bu koy waral dañoo xam ne ñii dañoo sonn mais am na ci boo yoo xam ni tey bu ñu amee lu daral seen tuuti rek xoolal dinañ yeewu xam ni objectif bi nii la champion mhm. waaw mais genre naan da baax ok jaajëf ñu déggoo waaw ci kaw ci kanam ok ok euh, <clears throat> Cheikh Bara Cheikh Bara bëgguñu kenn accéder ci moom soxnaam mënu ko gis ay mbokkam mënuñu ko gis ay taalibeem ko a ko mais ñoom Macky dafa assassiner Cheikh Bara wala lan Cheikh Bara dañ quoi c'est-à-dire dafa dee voilà Cheikh Bara dafa dee léegi ñu bëgg ko magal bi passé wala quoi Cheikh Bara dafa dé waaw il faut mu leer Cheikh Bara est mort parce que su deewuloon ah. du ñu nangu kenn du du du du dina jaxanaa jabaram dina ko gis wala ay mbokkam wala ay talibam ak mais c'est parce que Cheikh Bara dundul Cheikh Bara dundul li moy wax ji Cheikh Bara dundul allo way salaamaaleykum waaleykum salam ñu eh, ngi lay siyaare da baax waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay siyaare baax la nuyu di la rafet taxawaay wax dëgg yàlla waaw man de ci paste fi Espagne laa bokk waaw ñu bokk fi groupe fii waaw mais dama bëggoon indi sama contribution rek waaw muy xeex bi bis buy ñaani bis buy buy bu jógaatee itam mos na naa woote fa ne wax nga tabax nga police ak gendarmerie problème yëpp foofu la ñooñu ñoo may fit ji ñoo may fit euh, euh, Macky Sall ak gouvernement am. mais mm-hmm. xeex bi bu tourné woon euh, envers ñoom seen ñi parce que Macky Sall génn na ab loi boo xam ne képp ku bu jeune bu yore côté moloton rek police am na droit dóor la bal nga dee. waaw waaw police waaw demal continuer. Uh-huh. waaw waaw léegi léegi comme loi boobu génn léegi xeex amatee.

fayu c'est tout yàllaa ko wax ci alxuraan c'est boo reyee ñi rey c'est tout voilà gis nga loolu nag bu amoon mhm. ah peut-être ni policiers yi ñoom ñoom lu neex ni rek dañuy rey xala immigré yi ñu jàpp fan yi rek jël ci kenn rey ci dóor bal mu dee te te du mujj fenn mhm. waaw léegi bu xeer bi tourné woon ci ci ginnaaw kër policier ak rek wóor na yàlla li li ñu wax ji jeex ndax police yi dootu dootuñu jël si benn risque. Mhm. loolu la. parce que policiers yi jox na ñu naan droit ku yore cocktail moo def ngeen ko bal may wax booy policier bu tiiree benn jeune bal fépp fu jàpp jabar policier nekk ay doom ay baayam ak yaay rey yàlla moo wax ci alxuraan rey. ray parce que loolu loolu la ñuy œil pour œil et dent pour dent policier bu tiiree koñ boo leen dëkk jabaru policier nek fa doomi policier ray leen taal leen ngeen tey waaw parce que loolu moy protéger bakkan nit ñi quoi loolu moy protéger bakkan nit ñi quoi comme ñom dañuy japp ni sénégalais yi euh, euh, diñu ay nit ñom sen doom rek ñoo nekk nit ay policier am di tiire loi amu fii dama ne ku ci nekk jël sa responsabilité bépp kër boo koñ boo xam policier fi la dëkk ak gendarme policier ak gendarme wax mi ngi même si nekk seen dëkkandoor kër policier la kii policier moo ko famille policier la ak famille gendarme rey leen parce que ñun rey ñu kenn ñoom ñoo nekk des ñu rey rey bi nag dafay dagg rey bi ñom ñoo nekk di tal ay attentat di rey sénégalais ak yoyu da fay ku ci nekk nga jël sa responsabilité policier kër policier famille policier fu mu nekk ngeen ciblé leen xeex bi léegi technique lay jàng amul dox teñe teñe déedéet waaye allo allo waaw tonton Daba waaw waaw juge juge juge yi nga xamanteni ku ñëw ñu sanni la mandat de dépôt moom ñoom ñëpp seen kër dañ leen di recenser c'est-à-dire ñom lañuy cibler ñom ñoom seen famille ak seen jabar seen doom di leen kidnappé di leen enlever. ak ak procureur baaxum mi nga xamante ni mooy mooy o bi téye nit ñi ci kaso bi ñooñu lu tee ñu jël ci ñoom ay ay ay conditions yu leer nañ. mais ñu. mënuñu réer Sénégal. non mënuñu réer Sénégal mënuñu ko. juge premier cabinet juge deuxième cabinet mi nga xam dafa mel ni yor balu teg sam ku ñëw mu football. Mhm. Mhm. ñu ñooñu tamit dañoo war a taxaw ci ñoom. Mhm. nekkatul ñuy xeex ni doon def fan yee passé di taal poto lamp yi di dem ci boîte boîte internet yi di ko taal. Mhm. loolu lañu wër ko bàyyi. loolu duñ ko bàyyi fi muy jaar ñu ñu ñu ci ay kof ba lépp arrêté. waaw boole ci màggalu Tuubaa gi ñu bloqué autoroute bi ba benn oto du dem. waaw suñu bloqué. autoroute avant dem bi dikk bi léppay bloqué wu dara du dugg Touba parce que Touba li bari na lu fay dugg Dakar lay jóge dugg Touba wala Kaolack wala beneen zone ci <coughs> zone industrielle yi. Macky Sall dañoo taxaw teem ñu bàyyi président Ousmane Sonko ak nit ñi ñu jàpp parce que teguwut ci loi teguwut ci lenn jaay doole kese la. te Sénégal moom jarul sax ñu di leen xanaa xamoo ñun ñu nekk Europe maanaam ñun pression bi ñuy dund ñoom waa Sénégal yëguñu ci dara man sama borom kër mi ngi Sénégal mais boo waxee danaan ba ma fi ñëwee ba tey affaire Sénégal déggatoo ci dara ku ko tudd. xool mm-hmm. mm-hmm. barki démb Antoine Diome bi ñu demee Touba Touba gépp dañ cee sotti ay militaire ay gendarme ñu kabile wu mel ni Touba guerre moo am. waaw mais c'est parce que liggéey bu bon lañ def Touba jëf ju salte lañ def Touba parce que ñu ci dëgg. jàpp Touba sotti ko ay militaire ba yow foo tourné danga naa lan moo fi xew ba jàmm la. Ah? xam nga. dogguma la xam nga dëgg yàlla c'est que gis nga gis nga sénégalais yi maanam sénégalais yi ci bopp ñoo maanaam ñoo yor bopp dañ naan dañ leen a liggéey mais gis nga sénégal dina yomba liggéey parce que sénégalais moo tàyyeel euh, gaa ñi PayPal baa noonu noonu ku a participer quoi ñu jàppale booy yi PayPal baa noonu ci kaw quoi ñu participer ci combat waaw man man après man après dinaa dinaa def comme ni ma defoon bee waaw boo ma envoyé link ci ñuy dugal turam rek ma dugal ci parce que bi dafa dem Sénégal moo tax. waaw pour ma génn bi dafa xaw a difficile. Mm-hmm. waaw mais su mm-hmm. fekkoon am nga carte poste pay moom dama la koy envoyé pipi rek ci sa téléphone yow sa carte poste pay. ah mm-hmm. mais sénégalais ci boppam tonton da baax dafa dañoo taayee xam nga luñ bëgg sabar ndey dikkee ngénte yu ñàkk fayda yooyu lañ bëgg waaw. parce que Herbie, il faut il faut que nous, nous, nous, nous, pression depuis justice politiciens xam muy il pression li Guy Marius Sagna wax barki démb ni kër gu mboolem ku nu tëj rek am nga yaay am nga papa am nga xarit am nga ñoo dëkkal. benn koñ bu ñëpp ndoo génn. les années yi day fees dell. amuñu droit vraiment yéen ñu toog seen dëkkandoo ñu koy ñu toog quoi. ñii ñu tëj sa baay di ragal doom ju jigéen ñëpp ni xumm ci kër yi daan yàlla baax na yàlla du wàcc mukk di la toggal di la saxal ngay lekk. maa ngi jéggalu merci beaucoup. wax nga dëgg ah ñeent ñi tamit nga xam ne muy góor jigéen mag ak ndaw ñi ñi tej seen mbokk ñi ngi toog rek di jooy di jàmbat ngeen gis xale ñi ngi jënd di xeex doo leen jënd doo leen jënd doo leen jënd ñi xeex da ngeen bëgg a toog ni ngeen seetaan seen mbokk yi seen mbokk yi ci biir kaso bi toog noonu ngeen bu ko kal ci jàmbat yu wax rek wax rek wax wax fajul dara fii Macky xeex jënd xeex teegal mu arrière moo fi am leneen amu fi kër boo leen dëkk koñ boo leen dëkk ngeen gis fa benn policier wala benn gendarme talen leen kër gi famille bi ñom attaqué leen seen famille ñom policier ak gendarme ñom parce que lolu moy lolu moy kex bi nga xamné mom lañu wara tek ben lepp li nga xamné auto la fay jaar ñu fatt ko bloqué ko complètement ñi ngi naan ñi ngi Ousmane Sonko la wax Macky Sall rek bopam bu ko métier bopam bu métier bop Ousmane bu métier bop Ousmane bu métier barke salaatul fatiha yow di ngeen gëj am stabilité biir Sénégal waaw pour ngeen xam ko lu leer bopp Ousmane Sonko mu métti rek mu métti rek waaw kooku moom xeex bi léegi beneen méthode lañuy teg beneen tournure lañuy teg parce que il faut que ñu changer stratégie ci combat waaw ñun ak yéen tant que Macky Sall ngi ci biir Sénégal Sénégal dooleen am jàmm Sénégal de am stabilité tant que Macky Sall mu ngi ci Sénégal fii à n'importe quel moment et n'importe quel où où n'importe n'importe où n'importe quand n'importe quel moment nous nañu surgir loolu moom bu yeboo ngeen xam ko bu baax famille sen yéen yéen wax yéen sen famille ak sen doom yi ak seen xeex bi dana dem ci beneen tourni barke Nabil Moustapha parce que dinañ leen enlever un à un capet lañ leen di def disparaître ak yéen ak ñoom xaaral rek waaw grand oui waaw na ko léegi euh, Abdou Samane Bàcc moom ngeen doon tudd léegi léegi nii waaw waa ji di ko tudd hmm. moom mooy mag yi Baali Mountakha Mbacké soxna si Mountakha bi. waaye kooku kàccapan la gel boobu moo ànd ak moo Faysal mu ngi ci portable bi téléphone portable bi. léegi maanaam li ma bëgg a mooy ñun soxna Baali suñu yoon newul ci moom dañu xam ah. moom la moom moo woon Abdou Samad ci deux mille vingt et un moom moo daal suñu Mountakha wax ko loo xam ne dara amu ca. Mhm. doon nga déggaat après sëñ Abdou Mbacké mi ànd ak Ousmane Sonko di wax ne waxul dëgg sañ jéeg na ko mhm. moom boobu moom la doon tontuwaale pour ñu wax ji fan la jëm ok léegi bëgg ci àdduna man mii di wax ak yow sama mag mi ngi mi ngi otoom tëdd ci maye ko nangu ko koo fay te quatre millions la ko ci avance depuis deux mille six ak léegi nii bay ba léegi joxaatu ko un tëdd te nee nañ loxo ma nga ca am na xam-xam yoo xam mën na ko ba pare bëgg na ko ci gàttal nag Ousmane Sonko doo léegi bu bu mu ko nangoo gis dégg nga. Euh, dinaa la xawal benn affaire de. ji nga xaw ma xaw ma Bali mu xam naka naka naka samaxe boobu ñu wax noonu. Ah. kooku daal la mënalul Ousmane Sonko. non non loolu loolu loolu amul sigg sax sax dama bëgg maanaam pour ñun ñun di xamal ñun wax mu jeex amul leneen loolu man loolu mooy point bi. waaw ok ci kàttanu yàlla te incha allah dinañ am ndam. jeunes yi nañu organisé wu yan li mu wax démb sañ mun taxaa sañ moo sañ mun taxaa yéeni ko Macky Sall moo ko yéeni ndax booyu Macky Sall ak ak Souleymane Ndéné waaye ma ne ma ne ñoom ñoom ñëpp ñoom ñëpp ay duurkat lañu rek Ousmane lu mu leen tontu ñoom xam naa leen baax ba lo xam naa leen baax xam naa leen baax ba tuba la nag xam naa xam naa gars yi baax waaw xam naa lu baax baax lu ma nekk lépp la ñuy wax rek ba yàlla baax na xam nga waat waa d'accord jërëjëf xam nga waat Touba bu ñu ñu waxee ñi mer ñi di ñu ŋàññi tey li ngeen di dund nii musu leen ko dund yéen waa Touba man ba ma gisee ñu jël jaasi dóor jigéen parce que dafa takk mèche jaasi jaasi jaasi daa ne c'est fini ah ku dëkk ñu toj toj la jënd toj sa kër jënd la Touba c'est fini laa ne c'est fini moo am ni ñoom ñoom ñëpp seen loxo ñu ngi ci complot bi moo tax ñoom du ñu am jàmm te duñ leen may tarafatal ay nii parce que man ñun gëmuñu yooyu xam lu ñu gëm dëgg te yàlla tax dëgg rek la ñuy gëm te yàlla tax dëgg jub dëgg rek dëgg na amul mag amul ndaw réew boo koy tabax danga koy tabax ci dëgg ak jub mais li xew senegal ñoom ak ñi ñëre yëpp dëggoo sëñ mu tagaa wax ci doomu Touba yi à tëj sëñ Muntaka. wax ci ñi persécuté di arrêté déggoo sëñ muntaka wax ci mais gàmmu makal ñi bëgg a jënd pour wax ne way magal bi na na na n'y fi fi magal du am ñun ñun rek magal du am dama bëgg a wax ak sénégalais ñu ngi ci xeex xeex bi amul lenn ko ñu fi bàyyi barricade leen tali autorité bi téye ko dem wut leen moyen ñi ñu baare tali bi grand porteur yi ñu arrêté ko ba pëne yi ubbi réservoir bi mu tuuru oto du daw bloqué paralysé complètement dara du fa dugg gam ñun likkante ñun gis ngeen dama leen réew réew dafa am ay priorité dundin doomu aadama yàlla daf ko teg ci priorité même diine l'islam dafa am priorité tey réew mi mu ngi ci tolof tolof benn sénégalais amul jàmm benn sénégalais munoo fe boo feebaree doo faju xale yi liggéey amul ay nit ñooñu ko teg du yàlla moo ñu ko teg yàlla lu mu ñu teg mooy jox nañu alal ci suuf si jox nañu diine bi gën ci diine yi jox nañu yonent bi gën ci yonent yi jox nañu ay góor yàlla li ci des nit ki yaa mun a am fu la fayda képp ku la ne fii boo boo ci dee safara nga jëm day fen dëgg naa bas abdu xaar naa ne xeex bi boo ku ci dee fa euh, safara nga jëm magal bi boo ci dee ajana nga day duul day fen ay fenkat lañu ñoom ñëpp kenn di ci wax dëgg c'est un drogué ngand mam coureur de jupon ngand maam dama ne coureur de jupon la barke Nabil Moustapha la may wax ni du du accusation de dama lu leer laa la wax ñooñu ñoo fi toog di incarné tey li lu dal Sénégalais yi ak lu dal Touba ñoom ñoo ko teg nañu assumer seen liggéey moo tax booy ci xeex lañu nekk il faut xeex bi ngir yàlla ak yonent bi xeex bi ñoom dañ ko war a yëg ñoom dañ ko war a yëg mooy dañu war a barricade tali bi complètement oto du dugg oto du génn na booy yëpp jog ñu taxaw te ngeen bàyyi làmb ji bàyyi leen làmb ji ngir yàlla seen avenir xeex leen ko nee naa leen ñaari groupe ñooy xeex ñaar premier groupe bi mooy patriote yi gëm Sénégal bëgg Sénégal fonk Sénégal gëm yàlla ragal yàlla ni seen alal day des Sénégal tubaab bi du jël pétrole du jël dara beneen groupe bi mooy ñi ànd ak tubaab bi bëgg jël suñu pétrole di ko jox tubaab bi ñoom ñi ci am ay moccaat di noble ñeneen ñi nekk ci jafe-jafe loolu mooy nit nit da ngay jël sa responsable xeex bi yàlla pare na ci senegal quoi yàlla du wàcc xeexal ñu de. ay bandi ñoo yore Sénégal ay wuyu ay bandi ñoo yore Sénégal may wax nag sama boy nekk ka funtin commencé ko ci jululu ba ka funtin préparé leen bu leen dara bett renfort yi ñuy dugal noonu préparé leen bu baax bu ñu ñëwee ñu accueillir leen déggal seen ndey ba ku ci nekk xool ni sa lay ni la ni la sa yaay juree waaye waaye allo ale ale préparé nii dunta na ali bee baa seme hani moo kilin kana kana waaw kii bee seme hani moo kilin kana lu ko dalee dëkk Fountain euh, Janna euh, euh, kabajo continuer noonu tëj leen foofu verrouillé ñoom ñi ngi renfort embuscade préparé leen bu baax ñun ñoo leen gën a xam àll bi ñoo leen gën a xam nak la quoi kuñ ci téye koo ci téye taal leen ko ba mu takk takk oto bu bu këppee rek ngeen sotti ci essence taal leen ñoom ñëpp taal lépp lu ñu yor comme matériel récupéré leen ko bu leen reculer dara

waaw grand da nga nekk direct wala. waaw. ah ok d' accord ok d' accord ah ok ñu ngi ci suuf. yaa ngi ci biir ma jëlee ci suuf. non bon du information ah, man. acca ah, affaire bi situation bi dama bëggoon wax ak Sénégal sénégalais rek ah. waaw yaa ngi ci direct bi. bon dégg naa sa intervention euh, arrêté di vraiment di encourager Sénégalais di encourager population bi pour vraiment ñu révolter wu pour génne Sénégal situation bi euh, spécialement euh, président Sonko président Sonko na fu mu toll nii il est dans les mains de de de de l'ennemi lu neex def ko seen sëriñ yi ñoo wax yi seen vodou yi léegi am occasion téye ko ñaanal ko di ko fanal chaque jour di ko chaque jour bu bu jàllee rek xamal ni que il est plus en danger waxuñu santé sax mais plus en danger parce que lu ñu bëggoon. mooy jekk ko jël deretam def lu ci ne ku mu toll nii am nañ occasion bi hmm. lay wax ci mooy sénégalais xam nañu yow yaa ngi doog a wax gouvernement bandi dañu amanteel affaire hmm. ba pare ay doomaraam ñoo ci toog ay Khalifa Sall Barthélémy surtout sixième de système surtout le système tout le système ñooñu ñëpp dañuy war a balee donc man fu mu toll nii man fu mu toll nii man li may wax sénégalais yi mooy da ngeen di jóg ngeen xeex ngeen xeex da ngeen di dee boo leen xeexul da ngeen di dee parce que ñi dañoo bëgg a raser ñu baax ñëpp ñoom ñu bon ñu ak ñu ñu yor Sénégal ñu mu ko nu mu leen neexee ñu jël lépp luy soxla ñee ñu jël ñee ñi la la population bi nga xam ne amuñu doole ñu jël jël nañ nañ leen toog seen kaw xam nga ñu mun a def lu ñuy def te apartheid sax moo tane apartheid sax noir yi amoon nañu moo nañu génn dem def seen course yéen seen endroit yi dem ñëw mais bu ko fexee ba système bi toog fii yéen ñi dund apartheid ñooy seen seen seen life mooy gën a tane yéen li ngeen dund parce que yéen dootoo leen dootoo leen gis euh, li ñuy wax xaw ma li euh, ñu koy waxee te supermarché yi euh, ay Auchan yi sax dootoo leen fa jamati ñoom rek ñoom ñoo koy dugg yéen bu la fa taxaw duggee sax ñu dàqale dàqale sama yàq donc man maa ngi wax sénégalais yi ngeen génn ngeen xeex da baax yéen laay wëri yéen a ngi yi chaque jour chaque jour chaque jour te fii solution bi mooy Sonko kàtt ko fi génnee Sénégal élection mënu ko fi génnee fi génnee xeex dem jeexal nguuru Macky Sall moo gën Euh, euh, hommes militaires yi yiy déglu affaire yi yiy déglu live bi hmm? les hommes de police dañu xam ni ko fu mu toll nii seen moroom yaa ngi def li ñu war a def ci yenn yi parce que gisee e dëkk ni président mi koy yoroon doxul woon kon nag ñoom tey ñoom kaa prendre responsabilité wax nga wax nga ba sonn kon nag fu mu toll nii léegi ñoom ñoo ci des man daal laa amoon ci lu may wax ci lu gàtt quoi. ok merci beaucoup léegi après xam naa grand nañu wax nañu waxaat ci suuf après xam naa nañu waxaat ci suuf ba. d' accord d' accord d' accord merci beaucoup. ok gars il paye pas le ngi noonu ma ma pointé ko ci kaw pour ni bëgg a ni ñi jàpp ci ok ni ngi ci organisation bi ku yoot du sëxët waaw ku yoot du sëxët il faut que ni ni kon xeex bi ni continuer ko parce que dégg Ousmane lu mu leen wax leer na de teggiwul tànkam fa mu taxaw fa la taxaw lam len Macky Sall ka mu Ousmane lu ko tontu dëgg na bu baax waaw dëgg na bu baax kon fi ñun il faut réew mi mu changer faut mi soppi il n'en est pas question de changer, di changer, ñun changer, mais sénégalais est-ce que vous ngi ni facture courant facture courant 30 000, 35 000 est-ce que vous ngeen ni naaj rek rek rek rek rek rek thermique facture courant

nañ ci organiser wu gaañ nañu continuer ci xeex bi six mois moo ñu dese te li ma leen wax mooy lu leer Macky Sall Macky Sall Macky parewul pour bàyyi keneen nekk candidat pour APR benn bokk yaakaar Macky Sall bi mooy makisal ci boppam gis nga nu mu naa ne way nii wii nii non noonu lay système boobu lay def rek mais maa ngi wax sénégalais yépp na ngeen préparé wu alerte

yenn gàmmo yëpp capote il faut que ñu won leen naka la nan la parce que ñoom ba ñuy rey Sénégalais di leen toroxal di persécuter Sénégal di téye Sénégal di jaay di tëj ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak Macky Sall ne muut Serigne si laay waxal yenn yenn xalif généraux yi laay waxal jëlee ko Touba jaar Tiwaawoon Njaasaan euh, Kaolack ñëw ba euh, Laayeen Yoof dem ba xaw ma fan euh, Cheikh Oumar yéen ñëpp yi ngi ne pat Macky Sall mi ngi rey sénégale yi yéen a ngi teg seen bët yàlla mu ngi koy gis yéen a ngi ne muut toog léegi gàmmo bu jotee ak màggal ak ziyaare ngeen ne Sénégalais yi ñu doon rey noonu te waxu leen ñu ne ñu ñëw quoi seeni i mbokk ñëw waaye jox leen xaalis du am fii du am fii fii danañu fexe suñu fexe kenn tulaay kattan ba paralyser seen événement yi. te koku yàlla da fay ànd ak ñun sax daf ñuy féliciter lu leer naa wax de may wax nak jéxalé ci militaire yi li ma leen di wax Niger bi bi Niger yéen min té sénégalais du ngeen do leen taxaw Sénégal ngeen xex deug pour deug taxaw do leen xex ngeen jëlee fi injustice yéen ngeen da ngeen dem xex kan ngeen di xeexale ji. seen morom africain tuba bi ngembal leen ne leen demal nga xeexal ma fële comme ça ma continuer di jël alal bi benn France bi la bés boo leen dépare seen aéroport bi yalla seen avion bi explosé ci kaw ci barke yonent yalla Muhammad barke la ilaha illallah yalla nak ci explosé te saa yi ñuy dañuy ñaan basbala yalla won ñu sarahi ñu jëndee ko yalla sen avion bi explosé ci kaw bala ngeen di wacc te dama xamul sa ban jaw ngeen di jaar quoi parce que ñi tëj nañ sen espace aérien xamu fi ngeen di jaar waaw ni ngeen woro sénégalais wor sénégalais pour dem pour xex yenen africain ngir intérêt tubab bi te yéen ngeen gis ñu ñaaw téef ci biir réew ngeen toog yalla na seen avion bi explosé yalla na ngeen day fofu yeen ñep kenn bu mu dellu si ci barke alcorane karim bu kenn dellu si sénégal yéen ñëpp yal na ngeen fa faatu da ngeen fa des ci barke salaatul faati bu kenn dellu si. Dabakh Malick. waaw yaa ngi ci laaj. oui. xam naa balaa ngaa pare dinaa woote waat ndax mënuma wax léegi. mais une quelques temps dix minutes dinaa la woo wax. dégg ah, nga léegi ma tëj de léegi ma tëj. léegi waaw waaw booy wax waxal de. kon nag ma wax. waaw waxal moo gën waaw da mhm. baax mhm. sénégalais yi laay waxal ñu nekk ci panel bi waaw damay renouveler li ma doon wax ndax gis naa léegi Kaytaf nekk ci sa panel bi waaw donc information bi dina gën a baax ndax moom waxtaane waxoon naa ak moom ba pare mhm. te idée bi il l'a trouvé pertinent oui yow bi xamoon nga ko ba pare dama koy répété dama bëgg rek man heure boo defee live ma répété ko pour euh, yow boo amul jot nit ñi dégg ko. waaw. léegi li ma doon wax sénégalais il faut euh, pro waxoon na ni ñun dañoo war a euh, arrêté nekk dans le défensif nekk in the offensive. offensive merci xam nga. Uh-huh. ni ñu war a nee offensive nag mooy li ñu waxoon sénégalais bu nekk nañu indi ñaar wala ñetti nit ut ko cellule léegi wax la lenn. yow boo xoolee sa sa subscribe mhm. ñu ngi nekk euh, treize personnes say abonné donc yow ku abonné ci channel ci sa ci sa chaîne mhm. xam nga ni bañu mi ngi déglu mi ngi déglu show n'est-ce pas mhm. abonné ci say channel même live donc am nga

Mm-hmm. léegi lan laa bëggoon sénégalais yi nekk ci live bi léegi kenn ku nekk nañu wax ñaata nit la mën a indi ku ku nekk ci panel bi nañu bind deux ñii nañu bind trois ñii nañu bind quatre ñii nañu bind cinq mm-hmm. man mënuma bind léegi léegi mais man mën naa indi cent quarante mm-hmm. xam nga li ma la léegi sénégalais yi nekk ci panel bi yéen wax leen ñu ku nekk ñaata nit yu nekk Sénégal nga mën a dugal ci ci bi nga mën a dugal créer groupe mm-hmm. groupe yooyu la ñuy jéem a jël exploité ko xam nga li ma la léegi bu nit ñëpp dugalee ne leen euh, nga ne par exemple yow da baax nga laaj leen ku nekk ku mën a dugal nombre de personnes yi nga mën a def euh, ñuy ñu bokk ci fight bi dugalal ma un mm-hmm. dugalal ma deux dugalal ma trois nga xool ñëpp ñu ku dugal ñaari nit ku dugal ñetti nit

duñ ko annoncé dañuy jékki-jékki rek ñun ñëpp ñu daje fi ñuy xeexee kenn du xam lu tax sax ñun ñëpp daje la fii. Mhm. jëndal booy yi sac au dos am seen euh, cocktail molotov am seen i masque ñoom ñëpp jékki-jékki rek daje foofu parce que bu boobaa dañuy daje ci beneen panel wax nan la ñuy def ak jour bi ñuy dajee ak nan la ñuy daje léegi dootuñu nekk la in the defensive dañuy mhm. nekk in the offensive. waay léegi gars yi wax leen ñu par exemple ci live bi ku nekk ñaata sénégalais ñu nekk ci panel bi ñu nekk ci live bi yëpp ñaata nit nga mën a indi ci sa euh, ci nga mën a indi ci euh, nu mu tuddati cellule bi ñaata nit nga mën a contribuer ñu mën a bokk ci fight bi Sénégal gis nga am na kenn ku dugg kaddu TV nee na mën na indi deux. kaddu TV deux xam nee na mën na indi deux. léegi yéen ñu nekk ci panel bi yëpp wax leen ñu ñaata nit ngeen mën a indi ñu bokk ci xeex bi Sénégal ku nekk nañu wax ñaata nit nga mën a dindi indi léegi bu ñu nit ñi waxee ñaata nit lañu ñu mën a indi après ñoo ñu mettre ko en perse perse gi ñu commencé xool ni ñuy defee plan bu bu bu live bi jeexee ñoom kaddu kii bi woola personnellement ci sa numéro bi nga joxe après ñu xool ni ñuy def. waaw waaw waaw yow bu affaire bi jeexee danaa la woowaat yow xam nga ñu ngi di déggante constamment. waaw. Euh, euh, kii kàll ah. kaddu TV maa ngi koy bindee ah. kaddu TV waaw. Euh, maa ko am na kenn ku dugal def mois cinq. waaw kaddu. xam nga man mën naa indi cent quarante. sama sëriñ kaddu TV cinq. cent quarante mois. waaw. mois léegi moom na la après. Ah, def cinq léegi ñi ku nekk ku mën a indi nit. bu nekk Sénégal mën ci fayet bi. nu ñu wax ñaata nit nga mën a indi. après ñu waxtaanaat léegi dinaa la woowaat de baax. waaw insister ci affaire boobu nga koy waxal dina am léegi ñu am ay. mais euh, léegi kay sof tamit. après ñu wax moom mu def noonu. amul amul amul amul bind ba pare te doo andi quoi. c'est-à-dire bu la ñu tardé képp ku xam bu la wóoree sa diggante ak yàlla ak sa bàmmeel munoo andi nit bul bind. bul bind na loolu rek la quoi c'est pas parce que yow yaa ngi sa clavier que mu nga ne waa dix ba pare nga toog non parce que. après ah, waxaat ndax voilà. ñoo ñëpp dañuy nekk ñun dañuy amaat beneen groupe boo xamante ne feneen la ñuy daje ñu mën a waxtaan nag lan la ñuy def avec suñu boy yi ñu yor ak dépense yeeg yëpp comprendre nga. oui numéro baa ngi noonu. pour ngeen woo nañu waxaat léegi. waaw ok. ok. ok junior. Mhm. loolu la ko. waaw man mom li ma yore moom mat na war na war euh, bo calculer 75 ak li nek feul lu mat euh, donc comme adresse là 30 wonna na dem euh, <laughs> ah oui waaw parce que vraiment amna 100 et quelques mhm. képp koo xam ne rek mun na mun na mun na aussi tamit numéro baa ngi noonu ah, mun ngeen woote quoi même bu live bi jexé mun ngeen woote mu nekk lu dëgër ñu xam quoi nu organiser mais nag euh, waaw groupe yi moom euh, taxaw na ba pare quoi parce que ñun suñu groupe yi am vraiment ñu ngi ci liggéey liggéey bu mucc ayib di leen wax ne ok que combat bi vigilance euh, la laaj ak détermination ak stratégie bi ñu war a pour dem waaw parce que il faut que ñu jeexal ak Macky Sall objectif mooy pare ak Macky Sall te nag léegi ngeen recenser ci cogni yi gendarme kër policier kër gendarme wax leen message boobu na jàll kër koñ bu nekk ci biir Sénégal ngeen xool fan la policier dëkk ak gendarme ngeen xam kër yi policier ak gendarme ne recensé comme dañ leen jox ordre ne leen tiré léegi nag ni ciblé ñoom seen famille ñoom policier yi ak seen gen ak gendarme yi seen kër yi ak seen njaboot seen kër yi ak seen njaboot waaw policier ak gendarme yi nañu seen kër yi fu ñu ci koñ yi fu ñu dëkk ñu xàmmee seen kër yi xàmmee seen njaboot yi ñoom policier ak gendarme yi foofu laay tëjee live bi quoi voilà di leen sant di leen ñaanal jàmm ñu fanaan jàmm ba suba allo oui allo ah sa na de. waaw. da baax waa léegi man euh, li sama grand boobu doon wax laa bëgg yokk rek pour ni nga xam ne dañuy ci live bi di indi ay nit. waaw. buñ lay woo. nañ la woo directement. nga gis leen. moo gën parce que dafa am ay infiltré. waay. kenn ku lay woo rek nga identifié may woo appel vidéo la. waaw buñ la woo mu téléphone noonu kese te doo xam ki ngay waxal parce que y' a trop d' te ku ci nekk nag da indi sa carte sa carte sa carte patriote sa carte d'identité merci beaucoup sa carte d'identité nga présenté wu sa carte d'identité da nga koy scanner nga yónnee ko. waaw kay nga identifier ma identifier la parce que kuy def doo laqatu. voilà bu fekkee bëgg bokk. waaw condition yi carte d'identité ko ba pare mu présenté la carte d'identité pour nga xam kan ngay waxal yow. waaw nga nga nga scanner ko nga yónnee ko ma gis.

présenter seen carte euh, par facile. mais carte d'identité moom carte d'identité bi waaw c'est c'est clair que ni que nit kooku moom la. appel vidéo parce que photo carte d'identité di la ko di la ko scanner di la ko envoyer. voilà appel vidéo nañ la ko fotol nañ la ko fotol yow ba pare yow nga wax ak ñoom xam nga boo gisee photo bi ci carte d'identité bi di nga xam ne bu wax ak yow. waaw. bu nangu wax ak kenn te gisoo ko. nañ la nañ la appel vidéo mu leer ni que ki ngay waxal moo nekk ci carte d'identité